waxtaan la du du sax émission tey bu ngeen seetloo nii euh, amuñu sax un journaliste boo xam ne mooy laaj ay question yu ni mel euh, mais waxtaan la boo xam ne euh, man maa ko amaloon ci sama page personnelle sama page Facebook invité ci woon sama ay xarit Moustapha Diouf Serigne Moustapha Diouf ak Cheikh Omar Bamba Diop. xam naa ñoom dinaa leen bàyyi après nuyu ak ñu nuyu euh, euh, bi nii mais bi waxtaanee ci li nga xam ne si ni moo xew Touba li nga xam ne si ni mooy xew-xew yi nga xam ne moo am fan yi euh, waa Lamine Niang nga xam ni moom mën nañ ko tuddee le rédacteur en chef de Jotna TV moom dafa déglu émission mu intéressé mu xam ne liñ doon waxtaan war nañ ko mën a yaatal ndaxte li internet yi di wax ak yi sénégalais yi di wax mooy yéen ñi nga xam ni xëy na yéen a nekk ci parti bi xam les textes xam les et am ngeen ci ay responsabilités et que aussi euh, euh, xam nañ ni bokk leen ci ñi nga xam ne ñooy wisaare violence bokk leen ci ñi nga xam ne ñooy saagal bokk leen ci ñi xam ne ñooy xuloo terrain bi da ngeen ko bàyyi ak ñeneen ñoo xam ne xëy na na ñooy dañuy mbubboo Pastef wala ñeneen ñoo xam ne dañuy wax ci Pastef xëy na moo tax euh, Lamine euh, di ko remercier bu baax moom ak équipe jot na bi nekk derrière ñu bëggoon ñuy amal jotaay yu mel nii comme bi duñ ko amee keroog ñu amal ko tey suñu ci euh, page jot na donc du coup bala muy tàmbali rek damay bàyyi suñu suwaaju ak Cheikh ñu nuyu ñuy seetaan waaw salaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani ñoo ngi am mbégte lool di amaat daje bi nga xam te ne amaloon nañ ko ba noppi ci Facebook bi mu doon waxtaan entre mbokki taalibi entre mbokki patriote euh, ñu am ñu am tawféexu mën ko yaatal fii ci Jotna TV euh, ñoo ngi kontaan lool bokkal jotaay bi Seydina Omar ak Baye Lahad euh, di ñaan ñi ñuy teewlu ñu. dawal compréhension suñu suñu matadi waaw lépp luñ fi wax lu mat rek ñu jàpp ne suñu borom la lu matadi ñu jéggal ñu ko di ñaan suñu waxtaan bi euh, njariñ rek tukkee ci incha allah rabbi euh, sëñ sëñ war bismillah jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa réew mi ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew ñu ci yonente bi sallallahu di ñaan yàlla dolli ak teraanga ak leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye it mbokkam ma Seydina Jésus Christ alayhi salaam di ziare boolem kilifa diine yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi di ziare it boolem kilifa diine yi nga xamante ne ñoom lañu ñu bokkal nekk ci biir liggéey bu mag bi di ziare baylaat di ziare it sëñ Moussa Diouf di am mbégte dajawaat ak bokk taalibe bi ak bokki jullit yi ak bokki militant yi waxtaane loo xamante ne mm, réew mi la concerné mm. ndax Pastef moom mooy li nga xamante ne moo dàmbale réew mi fi mu toll mooy xel daje gi yaakaar yi ci la daje mébét ju rëy yi ci la daje ñi bëgg réew mi ñi ci lan daje kon jàpp naa ne jamono bu nekk war nañoo daje ci seen biir nag ak ci seen sensibilité yi wuute di waxtaan ci diisoo ngir uh, mébét mu min yanu ñu mën koo sippi fan bëgg baylaat ah ko waaye jërëjëf Cheikh Omar ñoo ngi leen di sant bu baax Cheikh Moustapha ñi nuyoo am solo yooyu noonu ah, donc kon ñu dugg ci waxtaan wi rek ah, waxtaan wi nag li ko waral comme ni ma ko junjee sànq mooy ah, président Ousmane Sonko dafa demoon Touba bi mu demee tuubaayit it nag dem boobu noonu indi coow lu bare bare bare indi ko ci réew mi indi ko ci aussi ci Euh, mmh. euh, biir Touba mmh. indi ko ci ci ci même ci biir murit sax muy ay tuuma yoo xam ne ñoo ngi koy dégg dem ba boobaak léegi ñu koy dégg li jar a leeral nag aussi mooy euh, émission bi ñun ba ba ba xew-xew amee rek lañ ko defoon waa jot na bëgg ñu def ko fii kon bu ñu ñëwee turu émission bi ñu ngi koy tuddee teggi tuuma lañ ko tuddee waaye tekki tuuma ji nag jëmul sax li jëm ci mooy actualité bi nga xam ne moo am xëy na sëñ Moustapha dina ci ñëw léegi muy ci li nga xam ne mooy suñu frère suñu xarit Ngagne Demba wax ji nga xam ne ñëw na ci benn wax boo xam ne wax na ko euh, ci euh, fële ci benn conférence bu mu doon def euh, ci Dakar. mais avant installation de cellule. waaw installation de cellule voilà bu mu doon def Dakar. voilà donc loolu après dinañ ci ñëw mais ñun wax ji sax bi ñuy tuddee émission bi nii ak waxtaan bi bu ñu ko tuddee teggi tuuma li ko waral mooy li jëm spécialement li nga xam ne si ni moo xew Touba li nga xam ne euh, gis nañu ni am na changement am na fa gis nañu ni population Touba ñu ngi adhéré ci message Ousmane Sonko ñu ngi koy topp ñu ngi génn ñi ngi liggéey bu baax a baax foofu noonu ci Touba et que changement mu ngi am foofu noonu ah, loolu it du loo xam ne Touba rek lañ ko remarqué mais ci réew mépp lañ ko remarqué réew mi fa mel ne dafa toll ci ak jeex ki ko. li ñu wax maanaam li wolof naan jeqiku maanaam révolution révolution euh, ce qui est contraire à ak ak fipp bokkul fipp nag mooy révolte révolution nag mooy ñoo xam ni dañu bëgg a soppi li fi ne pour yóbbu ko fu ko gën euh, tey am yoon woo xam ne si ni ci lañ bëgg a jaar fipp nag moom mooy ñoo xam ne rek xëy na dañuy bëgg a xeex rek ngir jóge ci nooteel boo xam ne ñoo ngi ko am euh, te it duñu xool sax fan la ñuy jaar wala ñu xool sax conséquences Euh, wala ñu xam conséquences yi nga xam ne loolu loolu di joxe mais euh, ak jeqiku ci la réew mi toll dafa mel ni li ci suuf lu ñu nëppal nëppaloon tam ne ci suuf te Cheikh Anta daan ko wax naan les fondement de la nation naan lu ci mel ne suñu langue yi suñu wax yi d'ailleurs même langue yooyu sax da ciy dugg li nga xam ne si ni moo xew nga xam ni léeg-léeg am na baat boo xam ne lu ñu xam sax lu muy tekki lu ci mel ne par exemple terrorisme li muy tekki lépp ak diisaay ba la ca nekk wala loolu ci xëy na ci tubaab la mais bu dee araab bi tamit daawa googu nga xam ne si ni suñu xarit suñu mbokk maître nga dem wax na ko muy di coow yooyu aussi xëy na loolu yëpp li ko waral mooy jeqiku goo xam ne si ni waroon nañ koo def bu yàgg mooy maanaam def une révolution euh, def ay une constitution bu nga xam ne si ni dana méngoo ak waa dëkk bi dana méngoo li nga xam ne si ni mooy suñuy aspiration ci wàllu mboor maanaam ci wàllu suñu histoire ci wàllu suñuy làkk ñu làkk yi nga xam ne moom la ñu làkk fii ci dëkk bi di ko demee marché di ko nduggee di ko waxtaanee di ko di ko di ko di ko café di ko reewee ñu ñu mën cee def tamit de la même manière ñu ciy def loolu ñu mën cee def ñu sérieux yi nga xam moom lañ jàpp mooy sérieux administration su suñuy texte de loi suñu njàng xam-xam et cetera yooyu yëpp ay mbir la yoo xam waroon nañ ko mën a wëlbati te defuñu ko xëy na nag foofu moo tax tey réew mi toll ci jafe-jafe yu métte ba nga xam ne kenn déggatul sa morom kenn déglootul sa morom te loolu c'est une réalité maanaam man dama am samay xarit yu ma jege yoo xam ne bokkuñu fu fuñ for mais mënatuñ waxtaan mënatuñu waxtaan ndax mun duñu déggoo en fait ñu déggoo te damay xam ni ils sont de bonne fois comme ni tubaab di wax damay xam ni maanaam waxuñu ñàkk ñu déggoo man ndaxu naafeq mais dañuy ñàkku déggoo man ndax duñu bokk sax fu ñuy jëlee euh, euh, euh, mbir yi ñuy wax wala li ñuy waxtaan lu ci mel ne ci xew-xew Tuubaa yi lu ci mel ne ci leneen ak leneen te xëy na loolu li ko waral mooy euh, foo xam ni réew mi tension yoo xam ne Macky Sall yóbbu na fa réew mi Macky Sall ak gouvernement ba ak ak ñi nga xam ne ñoo jiitu yóbbu nañ fa réew mi xam ni déggootuñu fi mu toll nii man ba émission bii sax biñ koy waaj ñu ngi ciy waxtaan ak ñoom suñu Moustapha di ci wax ni nañu sax def ndànk ci li ñuy wax ndax foo li ñu naan foo loolu laal rek. man man mun a jëppet ndax ñëpp a tàng ñëpp am aw tàngoor donc loolu nag muy nekk initiation boo xam si nii dañ koy yëg si suñu biir kër yi yëg ko suñu relation familiale yëg ko ci kër diine yi yëg ko ci sax ci barab yu nga xam ne du fi mel ne ay barab yu mel ne Touba du mel ne waxu sëñ Maay Ñas jooju mu wax fan yi et cetera et cetera maanaam mbir mi doy na waar moo tax ñu ñu ni wax jot na waxtaan jot na euh, tey ni ma ko defee nii nag tey euh, waxtaan yu xëy na keroog mbir ma xew Touba la moo tax ma woo samay xarit yoo xam ne xëy na euh, Euh, am nañ ci lecture ndax ay peut-être ñu ngi ci langue politique yi mais sax ñoom ñeen ñi Touba la ñu dëkk ndax Cheikh Omar mii moom dara umb ko Touba ndax Touba la dëkk moom it war xam li nga xam ne si mooy xew Touba moo tax moo invité waaye bëgg nañu jotaay yu mel nii incha allah ñu koy yaatal ak ñi nga xam ne euh, ñoo ngi ci yeneen sax kër diine yi te bokk ci biir Pastef euh, moo xam ci yaan la moo xam laa yen moo xam ñeseen et cetera ñu mën a yaatal ñu mën a waxtaan ñoom seen i ressenti wax li nga xam ne si mooy seen i aspiration ak li nga xam ne moom lañ déggee Pastef ndax Pastef nag lu yaatu la loo xam ne ñëpp a ngi ci biir ay murite ngi ci ay tijaan ngi ci ay laayeen ngi ci ay xaadir ay ibaadu rahmaan ngi ci lépp a ngi ci mais dañoo nekk la dañoo nekk lu ñuy tuddee l'unité dans la dans la diversité ci loolu lañ ne loolu nag moo tax xëy na jotaay yu mel ni incha allah dinañ ko gën a yaatal indi ñëpp ñu waxtaan euh, wax ñoom ci li nga xam ni moo moo waral euh, ay naw aki jigéen ak i góor ak i mag takku ngir jeex def ak jeqiku def une révolution changer li nga xam moo fi nekk kon damay introduir Moustapha Diop mooy sëñ Moustapha bu amee lu muy dolli ci li nga xam ne rek moom laa introduire euh, ñu ñu mën a jox na kàddu gi après Cheikh Omar mu mën a ñëw ci li nga xam ne mooy xew-xew Touba yi waaw jërëjëf Baye Lahad am na solo Euh, maanaam euh, lu lu am solo nga wax dans le sens où souvent amoon na beneen waxtaan bu ma amaloon boobu bi yoon sur Facebook boo xam ne li ma bëggoon invité nit ñi ñu def rek mooy euh, culture de la contradiction ñu jëm ko cultiver mooy ñun am na yu ñuy subir ñun am na lu ñuy tontoo am na benn mobilisation bu ñuy def ci suñu tontu muy am benn envergure bi lépp mën nañ ko def ci dal lépp mën nañ ko def ci civilité lépp mën nañ ko def ci teggin loolu duma ci insister jamais assez parce que ñun dañ ne dañoo woote faire de la politique autrement donc ñu ñëw war a jaayante malgré lu mu metti metti en tout cas tout ce qui tout ce qui concerne le débat débat d'idées ñu koy jaayante à chaque fois maanaam li ñu li ñu li ñu li ñu woote ñu di ko niru loolu mooy première chose bi moo tax waxtaan bii nii damaa bëggoon mu nekk loo xam te ne bu jàpp ne waa Pastef ñoo nekk di wax rek mais vraiment képp ku mu mënti doon ak foo mënti nekk boor boo mënti nekk nga déglu ñoo kel xool suñuy argument sooy càmbar nga càmbar argument yi bañ a def par par loolu mooy premier point bi deuxième point am loo wax lu solo mooy ne euh, diversité bi nekk ci biir passé soo xoolee àddina addina noonu la demee addina noonu la demee nit ñi dañoo wute lool lool mbooloo humain boo jël nit ñi dañuy wute lool lool lool waaye buñ fàtte ne suñu wutee lool noonu ba pare ñu ñëpp dajee ci biir Pastef daje ci le don de soi pour la patrie daje ci changement boobu ñu bëgg indi Sénégal daje ci booloo ci xeex bi ñu bëgg a xeex en fait loolu mooy loolu dafay gën a renforcer dafay gën a symboliser suñu diversité bi de donc suñu uni unifié woo dajee ci benn point noonu loolu dañ ko war a gën a fësal dañ war a gën a euh, xam importance bi léegi xam naa yooyu sujet ñuy débattre la ci kanam euh, benn point premier point bi ñu bëggoon a bi ñëw rek te yàlla xam na ne avant conférence de presse bi mooy lancement cellule de Sacré-Cœur bi nga xam te ne suñu Omar moom témoin privilégié la ci woon dafa am benn point bu bu nekk ci actualité bi muy maître Ngagne Demba Touré par rapport ak yoo xam te ne loo xam te ne waxee na ko euh, gars yi langaamu ci bëgg a indi li tubaab di wax une tempête dans un verre d'eau mooy fu dara amul il y a il n'y a pas de quoi fouetter le chat gars yi comme amuñu luñ jàpp ñu bëgg cee langaamu ndax jël man misaal bi may jël mooy ku jugee ci étage bu mu gàndee di daanu lu mu jot rek dana ci jàpp wala kuy lab lu mu jot rek dana ci jàpp man noonu laa ko gisee moo tax ñaari du ci xaw a sonn du ma ci perte sama mais comme yàlla def na ñu am jotaay loolu xew ñu ci ci wax ma jàpp ne day am solo ñu leeral ci tuuti balaa ñoo jox témoin bii di Seydina Omar mu moom mu indi ci moom moom mi fa nekkoon wan jàngar la ci am ndax man li ma jàpp mooy dafa am yoo xam te ne c'est des débats dérisoires dafa am yoo xam te ne ce sont des débats de mooy lu am solo loo xam te ne war warees na cee taxaw di wax mooy lu jëmale kanam réew mi mooy ni ñu yoree suñu réew ñu di ko ŋàññ ñëpp gis ko mu ne fàng euh, organe de contrôle ñu war ko ñu war a wax ci yooyu fan lañ jëmale réew mi mais nit wax ñu jël benn kàddu naan dañ ci langaamu di couper ay vidéo te ku dem seetaan vidéo bi am na ci te nga gis ne dara nekk ci man yooyu ñaari du ma ci bëgg a am ndax dama jàpp ne dañuy ñuy divertir ñun ñuy xaw a animer divertir boobu loolu mooy première chose bi. Mm-hmm. deuxième chose bi mooy euh, importance làkk baat day mel ne man moo wax may wax ci français. comme man euh, intellectuel francophone la donc su may wax appel suñu woote appel lay keneen kuy kuy euh, kuy wax en anglais il il va utiliser l'équivalent en anglais kuy wax ci olof ne woote ku xam ne moom moom am njàngam ci arabe la féete su bëggee wax appelle mu ne daawa mu mu appel la utiliser dans une autre langue mot bi c'est pas parce que am na benn groupe de nit bu ñu identifié boo xam ne dañ koy faral di jëfandikoo Euh, c' est pas parce que mooma nañ leen mot bi que mot bi keneen war ko utiliser day mel ne day mel ne dama yàlla baat borom ñaari tur yi ni ñu def lu nekk ci nature bi la arc kon asamaan su génnee arc-en-ciel est ce que dañ naan asamaan dafa ànd ak ñoom déedéet euh, beneen beneen misaal soo jëlee yenn ñi nga xam ne ay ay terroriste lañ leen di woowee nga xam te su ñuy def yenn yi ñuy def dañuy wax baatu allahu akbar est ce que dafa war a tax

ak expliquer ñu un petit peu nan la ressentir mbir yi foofu. laalal micro bi wax jërëjëf Cheikh Moustapha ci introduction bu am solo boobu nga def jërëjëf Cheikh Blanc yow ci tamhid boobu nga def fa tabarakallahu jotaay ba man yàlla dogal na fa la mu fekk mm-hmm. nii maa doon modéré débat bi toogee di installé cellule bi te booba ngañ dem ba jëlagut kàddu yónnee naa ko SMS ne ko rappelé ma thème bi nga war a traité mu yónnee muy enrôlement des primo votants et massification mm-hmm. loolu mooy liñ njëkk a échangé foofu ñu ñëwee di jël kàddu ba agsi ci loolu mu doon expliqué muy maanaam lan moo ñu tax a jóg fan lañ jëm ak ñi ñan lañ war a wut ak luñ leen war a defloo ci loolu lay expliquer ne loolu moo tolloo ak li nga xamante ne moom la ñuy wooye daawa mooy nit ñi boo leen woowee da nga leen leeral li leen woowee lan la naka lañ koy defee ak buñ ko defee fan la leen jëmale mu mel ne rek euh, li alxuraan di wax naan yaa ayyuha alladina amanu in jaakum faasiqum bi naba in fatabayyanu maanaam su fekkente ne nit dafa jow indi la information na nga teey bu baax a baax bala ngaa réagir ndax waxi ngañ dàmba ji yóbbu nañ ñu bari ñu nekk ay cuune ndax lim lim doon wax fam ko waxe fala référence historique bi mu def dëppoo na ak te xamante ne moom la doon traité kon problème sémantique bi nga xamante ne moom lañu bëgg a poser loolu du suñu problème suñu hmm. problème mooy la daan xew démb ak bëgg dem moo xewaat mooy Pastef ci ñu bari ci réew mi ci ñoo xamante ne ci couche yëpp nag rawatina léeg ci ay religieux ñoo xamante dañ doon yaakaar ñoom euh, pondérance doon yaakaar ci ñoom waxte jëmmi yàlla tax ci ñoom lañ gisaat ñu jógaat daalaat seen machine bu mag boobu nga xamante ne mooy machine diabolisation muy machine boo xamante ne jàpp naa ne sax léegi maanaam effet inverse lay lay def ndax saa yu xëyee rek taal ko bu ngoonee mu yokk pas mu yokk positif xam-xam yokk leen ko. mu mel ne kon waxi ngañ dem ba tëre ji mbax baatu daaw bi moom loolu yaakaar naa leeral ngeen ko ba mu leer. Hmm. beneen nag mooy euh, baaxatana allahu li nuxrija man shaa min ibadati euh, min ibadati al ibada ila ibadati rabbil ibada bu citation boobu nga xamante ne ku ñuy wax euh, ku ñuy wax ibnu amir nuñ koy ribayi ibnu amir moo ko waxoon loolu mi nga amoon ca ndax il faut ñu delluwaat wax ci contexte historique bi ba ñu comprendre li ne moo tax muy wax parce que lii muy wax mm-hmm. dëgg la baatu ibaada da cee am te baatu ibaada di tekki culte mm-hmm. waaye citation bi fa mu juddoo sax c'était purement politique mm-hmm. parce que boobu mooy jamono euh, jamono euh, islam conquérant Seydina hmm. Omar ibn Xattaab radiallahu anhu yawal Seydina euh, Saad ibn Abi Waqas ñu ubbi ji Faris la bataille de de de Khadisiya wala la bataille de Khadisi foofee la hmm. bañ demee ba nga xamante ne Perse yi jullit ñi assiégé nañ leen ku ñuy wax Rustum nekk ba ab général boo xamante ne généralu xaysar bi la woon xaysar bi mi ngi tuddoon Yazdajir moo moo ne léegi dama yónnee ci Seydina Saad Ndaw ne ko dama bëgg nga yónnee ma ay émissaire pour de pour parler ñu yabal Seydina euh, Seydina euh, Ribaay ibnu Amir mu ñëw ci kanamu Rostom wala wala boog bu ngeen euh, ci noo bi nga xamante ne moo moo gën a tubaab muy Rostam mm-hmm. ba mu ñëwee mu laaj ko maanaam yéen lan mooy mission lan mooy sa dëgg-dëgg seen mission mu ne ko dañoo ñëw waaw ah, nga nga bàyyi xel li nga wax maanaam eh, eh, Roustom dafa jege ci armée boo xamante ne armée libératrice la ñëw jàkkaarloo ak un despote totalitaire boo xamante ne moom la ñuy woowee xaysar moom la ñuy woowee Yazdajir wala di wala wala un message boo xamante ne non seulement day leer mais ça doit appeler à la reddition mm-hmm. ak dina dina di leen woo it ci ñu xoolaat seen doxalin mu ne ko dañoo ñëw ngir fas yéene bis naka tey nit di jàmm moroomam nitam mooy li ñëpp bokk muy doole ci muy alal muy lu mën di doon maanaam ñu def ko ci benn pouvoir central boo xamante ne day am ko ko nit ñi bala ñoo jot ca daanaka sëñ bi mel koy jaamu loolee la wax na dañ loolu maanaam muy def lecture ci ambition yi nga xamante ne moom la Pastef am ak euh, te ambition yooyu di ambition souveraineté di ay ambition nationaliste yoo xamante ne dañoo war a jëmee ci ñu moom suñu bopp ndax wax ci kat fi ñu bi ko ngañ dem ba waxee ñi koy dagg maanaam buñ avancé woon quinze secondes euh, polémique du am ndax moom li muy wax orienté na ko ba leeral leen ci souveraineté laa ko jëmee li ma ko li ma ko li ci li ma ko jëmee mooy libération au peuple euh, de l' emprise de la dictature kon jàpp naa ne maanaam euh, loolu di ci di di ci débattre di ci di ci di ci euh, di ci di ci taxé ay nit euh, di leen ay def ay jugement de valeur jàpp naa ne loolu du ak maandu te du ak ragal yàlla te it réew mi dëgg-dëgg loolu loolu loolu loolu mën war nañ ko fee moytu leneen li ci gën a doy waar mooy maanaam même su fekkonte ne ci cadre ci cadre diine lay wax sax nit kuy jaamu nit sëñ bi loolu dañ ko dañ ko war a banir la in ashrakta la yaxbatanna amrak wala takunanna min alxaasirin képp koo hmm. xamante ne bokkaale nga yàlla lépp loo jëfantuuru na te bu am yow mal xeam ne da ngay perte bokkaale loolu dañ ko war a xeex hmm. loolu dañ ko war a xeex mais nag dëgg-dëgg doon wax si y avait rien de euh, y avait rien de religieux c'était purement c'était purement politique bi mu ko waxee man mii maa nga fa rasukkee mu ca damaa daal di am entendement ci nam ko bëgg a waxee déggee ko noonu amatuma bi ma xëyee sax gis ñu koy dagg di ko dugal j'étais choqué mais xam nga comme li Moustapha li Moustapha doguma la Cheikh Imam euh, Omar maa ngi jégalu. Mhm. mais mais li Cheikh Moustapha wax rek moo ci nekk. en fait mhm. euh, ay nit leen yoo xam ni. Mhm. ay attaques yi nii ñu ñuy topp di ñu wutal ay ndëgg sërëx ndax ba ñuy doog a tàmbali dañu ne woon Ousmane Sonko ci boppam la. moom ci boppam moo jiite mbir mi te it moom ab ibaadu rahmaan la boo xam ni. dafa bëgg a jël réew mi jox ko imaam loo mu jox ko waa Arabie Saoudite ñu def ci xaw ma la ak lan. ba wax yàgg nañuy wax yu mel euh, ba ci ñun ñii keroog maa ngi koy rappelé keroog si suñu waxtaanu keroog bi noonu la ñu sonne woon bi ñuy doog a dugg ci parti bi boo daan wax nit Ousmane Sonko la àndal boo moytul da koy wax bokk na xam ne sax waa Pastef ils sont très intelligents macha allah comme wax nga ko sànq ngay ñoom dañ ciy jàngee ba noppi dañ lay prendre en ba pare euh, euh, di ci ci yokk seen mbooloo mm. parce que bari na yu ñu daan bari na ñun mbokku taalibe yi xëy na ñoo dindi lu ni mel ndax eh, suma ma yaa ngi fay sëñ Moustapha dañ daan faral di wax ni daan utiliser xam nga tey moo bi daxawa la mais ñun dañ daan utiliser ay baat yoo xam ni baat yi murid leen daan ko wax ci Ousmane naan ñoo ngi yeesal sunu njébbal ñoo ngi yeesal sunu njébbal xam nga njébbaloog yooyu moom mbiri suuf yi la dañ ko daan utiliser pour di man di leen mën a tontu ci yooyu ñuy wax noonu hmm. donc dañuy diaboliser Euh, beneen bi ci topp nga xam ne moo jara peut-être leeral mooy le fait que contenu bi li nga wax c'était purement politique parce que article cinq boobu woo xëy na dinaa bàyyi suñu sabab moom mu ñëw ci waaye man bi ma ko xoolee et puis bon ama sax bi ma ko xoolee on le savait on le connaissait déjà on le savait kat lan mooy idéologie parti bi lan mooy def doctrine parti bi suñu doctrine boo demee yenn baat ya nga fa mën a tànn rek wax ko da nga fay fekk ñuy wax la impérialisme ak tubaab bi nga noot bi nga xam ne noot yi tubaab yi noot nañu ko nga xam ne si ni da ngay ci l' impression que ni li ñu a wax mooy Sénégal moomuñ suñu bopp réew moo xam ne si nii say contrat sa pétrole sa gaz ak yu ni mel euh, boo leen laajee lan moo tax ngeen signé lu mel nii ba ci fan yii président soo ko wax na ko ci TER bii nii euh, contrat yoo xam ne si nii amuñu ci dara luñ ciy gagné bi bu su perte amee sax ñun Sénégal ñun ñooy remboursé perte boobu noonu diggante boobu noonu loo xam ne si ni yow jaarul jaarul yoon bu la ko laajee naan lii nu mën a demee. Mm-hmm. bopp moo koy loolu nag xëy na moom moo li muy wax amul sax xëy na loolu la bëgg a wax dañoo bëgg a fexe ba tey dootu ñun suñuy askan dootuñu jaamu ay tubaab. Hmm. te it suñu biir askan aussi dootuñu jaamu Macky Sall. Hmm. dootuñu jaamu keneen koo xam ne si da nga ñuy téye téye suñu no suñu suñu noyyi di ñu wax jóg leen tëdd leen toog leen di ñu wax fii du ngeen fa dem ak fii du ngeen fa dem. voilà hmm. loolu moom laa ci bëggoon doole rek sama sa waaw. boo amee loolu. xanaa di encouragé encouragé maître Ngagne Demba rek. Mhm. waaw c'est ça ko xamal ne il est sur la bonne voie. xale la <laughs> il a reçu une hybride. boo xamante ne mm. may na ko muy puiser ci livre sacré yi ni muy ni muy puiser ci droit positif. dëgg la exactement. Euh, Ngagne Demba xam ngeen ne noonu yi duñ ko yéene Pastef. macha allah mm. gos bi gos bi c'est un c'est un Mbappé. c'est un Mbappé. kenn duñ duñ ko yéene Pastef. waaye nag danañ ko danañ ko épaulé dinañ ko couver dinañ ko sàng ba fi ñu bëgg a àgg àgg fa ak moom incha allahu taala ngañ dem ba doxalal waaw xam naa xam naa avant ñoo jàll ci point deux bi moom dafa dafa mel ne suñu borom dafa wax la woon mbir yi avant ndax bi mu demee wan faje yi bi mu jàkkaarloog si Moustapha Diop mi ngi wax naan mu ngi mu ngi def wax ba ay sigle ne noonu la tuddee système bi nga xam ne Macky Sall moom lay utiliser mooy wax oh. DID DID ah. euh, diaboliser euh, intimider et divertir voilà waaw diaboliser intimider et divertir léegi moom ci diaboliser bi la nekk diaboliser nag moom Pastef du lu bees ci ñun mm, mm. diaboliser lépp lu jub lépp gone gone yi ñoo ko xamul waaye ñun ñi fi nekkoon bi parti bi commencé ñun xam nañ loolu mm. absolument du lu bees te te te suñuy def similitude par rapport ak yoonu murid dafa mel ne lu jafe-jafe di gën a tax ñuy gën ñu gën a dëgër gën a gën a mbooloo gën a mbooloo bi di gën a yokk loolu xam naa du ma ci développé dañuy jàll ci ci point deux bi rek parce que man jàpp naa ne divertir yooyu noonu hmm. waruñu ko taxaw waruñu ko jox importance souvent nag loolu moom parenthèse personnelle la bu may def souvent ñun patriotes yi suñu suñu pas-pas suñu xër dina tax gars yi pour ñu piéger ñu ci ay débat yoo xam te ne du loolu mooy débat bi dafa yomb dafa yomb ñun def nañ loo xam te ne sax phénoménal c'est retentissant mooy li am Touba li am Mbacké def nañ ko ñun am na yeneen sujet yoo xamante ne comme j'ai dit tout à l'heure ay sujet de fond la qui qui touche à la communauté qui touche à l'intérêt commun loolu nan bañ bu ñu kenn waxloo ci leneen nan lànk nan wax ci loolu waaw mm. suñu bëggee yóbbu ci ay débat naan waaw kii mot bi mot bi mu utilisé et cetera waaw moo ko utilisé booy ni ko booy di waxee moo tax léegi ñun passons nan wax ci sujet de fond non sérieusement sérieusement des fois nii man moom attitude boobu laa ci am man damaa jël ne sama temps xam nga Serigne Touba def ne moom am na yoo xamante ne moom sañalu ko boppam mayu ko boppam di ci bind wala di ci wax wala di ci di ci di ci perte temps man sama temps du ma ci perte ci loolu donc li nga wax euh, sëñ Omar ñu encouragé maître ngeen Demba Touré ne ko ne ko man Vinicius laa gis nag su ma koy xool du ma gis Mbappé Vinicius laa gis macha allah nag jàmbar la léegi xam naa xam naa Jean Michel su jàppandee nga nga lancé ñu sujet euh, sëñ Tall Ngol Ngol boobu rek après ñu jàll ci sujet bi comme ça mën a mën a introduire sujet boobu su fekkee jàppande na ci yow Jean Michel waaw su jàppandiwul su jàppandiwul dafa am dafa am dafa am lu bari loo xam te ne mbokk taalibe yi ñu ngi koy fowee ci réseaux sociaux yi naan ku ci ne naan euh, am na liste officielle des mourides bu nar a génn man yàlla naa ci bokk ñi naan kii bokk ci kii naan ñi naan bokk ci ñu koy fowee. waaw bi muy bi si sëñ Bamba yi liggéey bi muy ñaan yàlla ku naan amin sax jegewu ay ay taalibeem soit disant taalibeem soit disant njabootam. parce que ñooñu man jàpp ma ni njabootu Sëriñ Tuubaa lañu Sëriñ Tuubaa amul yi doom Sëriñ Tuubaa li mu am mooy ay taalibe loolu la waxoon loolu la waxoon su ma fi jógee topp leen sama mbind jaamu jileen leen yàlla te topp sama mbind topp samay doom ñu ne ko buñ fi jeexee mu ni ñooñu xaw ma leen tey jii nag ay sëtam jóg yor santu Mbàkke di toroxal di jéem a toroxal sëñ Touba waaye seen bopp ngeen di toroxal mun leen a yàq dara ci sëñ Touba jàngu leen Matlabul Fawzayni yéen jàngu leen Matlabul Fawzayni ay nit dem be Touba ca biir jumaay sëriñ Touba di fa politique. wóor na ma ni sëñ Mountakha def ngeen ko lu mucc ngeen te lii état du Sénégal yéen a ngi tooñ de. yéen a ngi nii tooñ yéen a ngi nii tooñ parce que ñun amuñu lu dul kenn yooyu fii ku fi bëgg a tuutal limaamul mahdiyu wala nga bëgg fee tuutal buukunta wala nga bëgg fee tuutal sëriñ canaba wala nga bëgg fee tuutal xaadim rasul wala nga bëgg fee tuutal tuutal seydi haaji malik yaa ngi nuy tooñ tuutal yoral sa tuut ak sa jikko ju bon ak sa defin gu la neex waaye ba fi suñ kilifay diine yi ñun danoo ami kilifa nangu ko sëñ Muntaxa de wax dëgg yàlla fayu leen ko borom moom day ay baayam bin fi ne da a topp doon seenu taalibe wax naa leen fii ni wóor na ma ni yëf yii da koo dab waaye li ko gënaloon mooy bu bés buy wuy ji te yàlla na yeex fekk ku mu rek mu dib taalibe ndax loolu rek la ma sa wone topp ay magam doon seeni surga lu ñu ko sant mu def luñ ko tere mu bàyyi te duñ ko tere dara ndax du def lu fi koy tere ay rakkam ay doomam ay taalibeem di ànd ki nit di saboote Serigne Touba ca Touba te baa nga woon ca biir jumaa ja allahu akbar ay waaye ñii seen yaram du daw seen yaram du daw Touba Touba du fu ñuy politique Touba borom bi mu koy sañc jaamu yàlla képp a taxoon mu sanc ko jaamu yàlla jaamu yàlla rek woowu fa kenn pour lenn tey jii ay nit jóg mel ni danoo xëy ni suñ taalibe gi nan ko ba nan nan yëpp sëriñ si te yéen ñi leen ci dimbali ba ay nit jóge ca àll ba ñëw di di jéem a toroxal sëriñ Touba yéen ñoo ñuula yéen sëti sëriñ Touba yi ak yéen ñi naan ay taalibe yi sëriñ Touba ngeen def ngeen lu ñaaw lu bon loo xam ni amul kenn ku te nag gis nga li ngeen def tijaan yi la gën a naqari xaadir yi la gën a naqari maa la ko wax wallahi naqari na képp ku dib jullit képp ku dib sénégalais naqari na sax jàngu bi wallahi ci rek ab sëriñ bu ni maa ngi gërëm président mais président bu ñëwee ci kërub diine ñu bëgg juma mu tabaxal leen jumaa ju rafet équipe ko def fa lépp kilifa diine googu moom bu ko gërëmul sax dootu kilifa diine ngeen ni kenn du wax lu baax ci ci Macky Sall ñun Macky Sall yéen a xamut waaye man de personnellement li Macky Sall def ci Sénégal musuma gis président bu ko fi def te gëw ma ni beneen dina ko fi def Macky Sall dafa am lu ko yàlla defal yéen xamu leen xamu leen gis nga déglu naa Cheikh Amar yal na yàlla dolli wéram ak fan wu gudd taalube bu baax boobu nee na Cheikh Salihu bi Macky bi jotee ak Ablaye Wade dafa dem wax ko ko mu ne ko Ablaye Wade xanaa xamut ni Macky Sall ci moom la Sénégal di defaroo li mu defar ci réew mi kan moo ko fi mas a defar ci ay tali ci ay BRT ci ay terre ci ay avion ci lépp ak lycée ay université ay hôpitaux Macky Sall il a construit le Sénégal ku ko wax ñu saaga la maa ko wax maa ko wax mais terre bi aussi les autorités sénégalaises ngeen ngeen sécuriser ko parce que ñii ils sont capables d'aller mettre le feu Jean-Michel pour sécuriser le terre et ce que je vous dis là c'est important il faut tout sécuriser <laughs> faut vraiment de vrais garde-fous parce que sénégalais yi yenn niveau type de sénégalais bi ngeen doon wax ni moom ngeen bëgg mooy bii nga xam ne lu sénégalais baax le mu yàqu parce que ku deme ku na ku ñemee sacraliser euh, euh, euh, barab bi Sëriñ Tuubaa ñeme na lu ne ah. te gis ngeen lii bu dakku xam nga fu nuy mujj ñu ne dajji nañ démb barabu Sëriñ Tuubaa ba noonu ñu defoon Tombouctou loolu laa gis ni mooy raam jëm ci Sénégal sacraliser les tombeaux waaw yu yu sunu gaa yu baax yi fa jëm de fa jëm waaw fa lañ jëm ñi war a wax ñu wax parce que actuellement defe naa kenn ragalatul ñu saaga kenn bañatu ko sax kenn bañatu ko de wax dëgg yàlla réew mu nuy saaga kay ba sëriñ bi ni saaga leen bu dee mooy defar réew mi moomu réew kay koñ fa saaga sax danga war a sant jël ci asaka ji man day ba ma sañoon ngeen baleen di ma saaga man dong man moom ñooñu moom seeni saaga mën naa leen koo supporter waaye yéen a ngi def lu ñaaw lu bon surtout mbokki sëriñ Touba yi ànd ak i nit di di def lu bon biir Touba te yàgg naa koo wax am na ku dëkk Touba Mbàkke la sant sëñ Touba rek la bañ te koo contre sax fi mu ne nii il y parce que yàq nañ seen bopp macha allah xam naa ko de. ci euh, lu ni mel. waaw parce que en fait euh, xaw balaa maa jox kàddu gi Seydina Omar euh, damay xaw li ma li ñu invité sànq bi ñu commencé mu nekk débat yoo xam te ne dañuy wax ci fond bu ñu attaqué nit kii nañu wax ci li wax ñu ñu réagir ci mu nekk vraiment débat de fond comme ça ku ci dem mën cee jëriñu parce que au delà de moom góor gi nii moom mi ngi naan ñi war a wax nañu wax soo ko dégloo di nga xam ne kii ku war wax la clairement ndax il va du coq à l'âne c'est li muy wax dafa jaxasoo day wax lii wax lii te ci biir waxam moom wane na ne daa féete donc donc jarul ñuy ñu taxaw ci moom waaye dañu seet ci télé bi dafa bari ñoo xam te ne comme kii nii moom dafa yegg ba ci boot gi ay mbàkke mbàkke ci njabootu Serigne Touba. moom njaboot Serigne Touba génne na leen ci njaboot Serigne Touba. moom toll na foofu. te dañ koy gis ci mbokk taalibe ci réseaux sociaux yi nga xam te ne yow da ngay nekk militant patriote ñoom wax dara argument nga ñëw indi argument ne d'accord ñu ne la yow parce que doo murit moo tax. waaw sëñ Amar loolu lu ñu seetloo bu baax a baax a baax a baax ci réseaux sociaux yi ci télé bi euh, sëñ Cheikh Thioro bi mu demee TFM gars yi wax nañ ko ko foo dem dañ la koy wax maanaam yow. opposition boobu ñu bëgg a def entre nekk taalibe ak nekk patriote. léegi plus largement nag opposition entre diine ak politique donc yooyu da yow loolu lan lan nga ci mën a wax. waaw El Hadj Ngol Ngol daal lim wax su ma ko bëggoon a tënk daa mel ne damaa yendu ci ab néeg ñu yendu ma fa jox njar mu saf suukar te sedd te neex mu génn ñu di ko laaj ne ko Omar lu mu yendoo fee mu naan la ilaha illallah kii sëñ bi maanaam kaani lañ doon dëbb dañ ko ko sol nga xamante ne maanaam. dara dara dara dara lu xasaw ci wax amut. li lépp compila ay compilation de mensonge la. Hmm. Ah waaw na. nag maanaam nit su fekkente ne sag dund da ko koo bëgg a àcc ci wax jooy waxal nit mu di la mosal dootoo objectif. Hmm. Hmm. ñuy wax ku log log logal. ku log log logal. ñoom xam nañ amul militant. militant xaalis moo am militant xaalis moo moom nag euh, dafa dafa dafa dafa wàcc ligne éditoriale ndax da doon jàngat histoire réew mi. waaw. ay valeur ay vertu xaw ma lu mu def ba àll ko ba loola mu fàtte ko ba mënatul a wax lu dul ay musiba ndax lii mu doon wax dara amu ci. Mm-hmm. ndax euh, li xew cosaan li mooy xam nga damay faral di wax ne euh, Sénégal c'est une vraie nation une nation mooy nit ñoo xamante ne dañoo am un désir commun de vivre ensemble waaye ñun sunu nation amuñu désir un désir commun obligation commune de vivre ensemble moom la ñu am keroog jotaay bii bañ koy am yow Moustapha Diouf keroog yow la njëkk gis ba ma coupé maanaam am na kilifa gu ñu wax sëñ Mbàkke dem ca Njaareem ba ma wooyee la ma wax ci yow fépp foo xamante ne man sama jëmm lañ fa soxla man suma ma fa su ma fa déggee Moustapha Diouf wóolu na ngir kooku ñu daje man ak moom. Abdoulahad mii ba ñuy daje ci internet bi xamuñu woon ne ay bokk lañu waxtaan nañ ba daje ci lu si la bokk fa ay mbokk. Jean Michel mii génn léegi suma ma waxtaanoon moom faaw dina daje fenn léegi nag gis nga réew mi lii tax maanaam ciment boobu ñu liyee wéy di baax maa ngi koy wax démb wal fajiri ñaar li sëñ Fall la waxoon rek la ñuy indi sëñ Fall danoon ab diggante ñaar a ko yàq mooy tege lees mënul ak lànk lees man hmm. tege lees mënul mooy réew mi ñoo bokk ñun ñëpp ñoo ànd dajale suñuy xoox ak suñuy buy jox la ko. Mhm. ci appareil boo xamante ne moom la ñuy wooyee état. ngay woote tax sëriñ sii nga xamante ne ñoo jógoon di diabolisme Ngagne Demba Touré képp koo xamante ne amoo audace amoo courage man a taxaw ak Macky Sall wax ko dëgg. mais kon mhm. noppi. Mhm. Euh, su fekkente ne say kàddu gën a rafet noppi kon tànnal noppi. su say kàddu gën a rafet noppi yow yow noppi rek nga war a def. kon lii mu wax ni dara du ci dëgg lépp ay nar la te it maanaam réewande weesuwul ci njabootu Serigne Touba nga di ci tànn ñoo xamante ne ñoom ngay wax ne ñoo ànd ak Serigne bi ak ñu àndul ak Serigne bi Serigne Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasulullah daa wax ne. askanu Mbàkke ñaar yi dama ko fekk ci ñoom. nangoo toppante ak mokkal alxuraanul karim loolu loolu jamono lu mu yàgg-yàgg loolu changement boobu du am mukk saa yu ab jotaay amee ku dugg si ka war a jóg ci askanu ma maaram xam ne nag moo war a jóg jox kilifaam bu toog waxantuma laaj nag autorité suprême du mouridisme Cheikh Mountakha mi nga xamante ne daa baax te yàgg ci. Hmm. Cheikh mi nga xamante ne dafa laabir te yàgg ci. Hmm. Cheikh Mountakha mi nga xamante ne dafa yàgg taxaw. fa Ousmane Sonko nekk ñoom ñu ci biir Mbàkke ak buntu Mbàkke. ci ay BRT ci ay TER ci ay avion ci lépp ak ay université ay hôpitaux. Macky Sall il a construit le Sénégal ku ko wax ñu saaga la maa ko wax maa ko wax mais terre bi aussi les autorités sénégalaises ngeen ngeen sécuriser ko parce que ñii ils sont capables d'aller mettre le feu pour sécuriser le terre et ce que je vous dis là c'est important il faut tout sécuriser <laughs> faut vraiment de vrais garde-fous parce que <laughs> sénégalais yi yenn nouveau type de sénégalais bi ngeen doon wax ni moom ngeen bëgg mooy bii nga xam ne lu sénégalais baax le mu yàqu parce que ku deme ku na ku ñemee sacralise euh, euh, euh, barab bi sëriñ Tuubaa ñeme na lu ne ah te gis ngeen lii bu dakku xam nga fu nuy mujja ñu ne dajji nañ démb barabu sëriñ Tuubaa la noonu ñu defoon Tombouctou loolu laa gis ni mooy raam jëm si Sénégal sacraliser les tombeaux waaw yu yu sunu gaa yu baax yi fa lañ jëm de fa jëm waaw fa lañ jëm ñi war a wax nañu wax parce que actuellement defe naa kenn ragalatul ñu saaga la kenn bañatu ko sax kenn bañatu ko de wax dëgg yàlla réew mu nuy saaga kay ba sëriñ bi ni saaga leen bu dee mooy defar réew mi moomu réew kay koñ fa saaga sax da nga war a sant jël ci asaka ji man day booba sañoon ngeen baleen di ma saaga man donc man moom ñooñu moom seeni saaga mën naa leen koo supporter waaye yéen a ngi def lu ñaaw lu bon mbokki sëriñ Touba yi ànd ak i nit di di def lu bon biir Touba te yàgg naa koo wax am na ku dekk Touba Mbàkke la sant sëñ Touba rek la bañ da koo contre sax fi mu ne nii il y en a parce que yàq nañ seen bopp. macha allah waaw parce que en xaw euh, balaa maa jox kàddu gi sëñ Amar euh, damay xawa euh, li ma li ñu invité sànq bi ñu commencé mu nekk débat yoo xam ne dañuy wax ci kii nañu wax ci li mu wax ñu ñu réagir ci mu nekk vraiment débat de fond comme ça ku ci dem mën cee jëriñu parce que au delà de moom góor gi nii moom mi ngi naan ñi war a wax nañu wax soo ko dégloo di nga xam ne kii ku warta wax la clairement ndax il va du coq à l'âne c'est pas construit li muy wax dafa jaxasoo day wax lii wax lii te ci biir waxam moom wane na ne daa féete donc donc jarul ñuy ñuy taxaw ci moom waaye dañu seetlu ne ci réseaux sociaux yeeg ci télé bi dafa bari ñoo xam te ne comme kii nii moom dafa yeggee ba ci boddi ay mbàkke mbàkke ci njabootu Serigne Touba moom njaboot Serigne Touba génne na leen ci njaboot Serigne Touba moom toll na foofu te dañ koy gis ci mbokk taalibe ci réseaux sociaux yi nga xam te ne yow da ngay nekk militant patriote ñoom wax dara argument nga ñëw indi argument ne d'accord ñu yow parce que doo murit waaw sëñ Omar loolu lu ñu seetloo bu baax a baax baax a baax ci réseaux sociaux yi ci télé bi eh, sëñ Cheikh Thioro bi mu demee TFM gars yi wax nañ ko ko foo dem dañ la koy wax maanaam yow opposition boobu ñu bëgg a def entre nekk taalibe ak nekk patriote léegi plus largement nag opposition entre diine ak politique donc yooyu da ciy dugg yow loolu lan lan nga ci mën a wax. waaw a Hadj Tall Ngol daal li mu wax su ma ko bëggoon a tënk daa mel ne damaa yendu ci ab néeg ñu yendu ma faa jox njar. mu saf suukar te sedd te neex mu génn ñu di ko laaj ne ko Omar lu mu yendoo fee la ilaha de sëñ bi maanaam kaani lañ doon dëbb dañ ko ko yendoo sol nga xamante ne maanaam dara dara dara lu xasaw ci wax amut li mu wax lépp compila ay compilation de mensonge hmm. ah la su demee ne nag maanaam nit su fekkente ne sag dund da nga ko bëgg ci wax jooy waxal nit mu di la mosal dootoo objectif hmm. Hmm. ñuy wax ku log log logal hmm. ku log log amul militan militant xaalis moo am xaalis moo moom nag euh, dafa dafa dafa dafa wàcc ligne éditoriale ndax da doon jàngat histoire réew mi waaw ay valeur ci ay vertu xawma lu mu def ba àll ba loolu mu fàtte ko ba mënatu a wax lu dul ay musiba ndax li mu doon wax dara amu ci mhm. ndax euh, li xew cosaan li mooy xam nga damay faral di wax ne euh, Sénégal c'est une vraie nation une nation mooy nit ñoo xamante ne dañoo am un désir commun de vivre ensemble waaye ñun sunu nation amuñu désir un désir commun obligation commune de vivre ensemble moom la ñu am fi mu toll euh, keroog jotaay bii bañ koy am yow Moustapha Diouf keroog yow laa la njëkk ba ma coupé maanaam am na kilifa gu ñu wax sëñ Mbàkke dem ca njaareem ba ma wooyee la ma wax ci yow fépp foo xamante ne man sama jëmm lañ fa soxla man suma ma fa su ma fa déggee Moustapha Diouf wóolu naa ko ngir kooku ñu daje man moom Abdou Lahad mii ba ñu daje ci internet bi xamuñu woon ne ay bokk lañu waxtaan nañ ba daje ci jëlal lu si la bokk fa ay mbokk Jean Michel mii génn léegi suma ma waxtaanoon moom faaw dina daje fenn léegi nag gis nga réew mi lii tax maanaam ciment boobu ñu liyee wéy di baax maa ngi koy waxu démb wal fajiri ñaar yi li sëñ Fall waxoon rek la ñuy indi sëñ Fall danoon ab diggante ñaar a ko yàq mooy tege lees mënul mm-hmm. ak lànk lees man mm-hmm. tege lees mënul mooy réew mi ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ànd dajale suñuy xoox ak suñuy buy jox la ko mm-hmm. ci appareil boo xamante ne moom la ñuy wooyee état ngay wote taxas boor am ñoo xam ne ñoo sañ a wax ñoo sañ a déplacé wu ñoo saña a dajaloo am ñoo xamante ne da leen a bëgg a teg ne leen yéen yooyu sañu lañ ci dara ñooñu teg nañ teg nañ leen lees mënul parce que yii leen constitution bi garantiral dañ ko soxla ci seen dund lànk lees man mooy ba tey lii nga xamante ne ñoo ko moom te ma am ci xàq te soo ma ko joxee jàmm dong nga ciy topp nga lànk ne doo ma ko jox dëgg-dëgg yaa ngi lànk lees man kon ala mm. kulli xaal diggante boobu ak yàqu munu munu munu munu ak yàqu munu faa ñàkk faaw faaw yàquwante am loolu mooy li dox diggante Sénégal yi ak la président mm. Macky Sall mënta nekk ci réew mi di lambar lambari fu ko neex dem di sàkkal Ousmane Sonko fu ak fu muy bàyyi la mayoon ba tax tey jii mu mën a jiite Sénégal na am élégance bu toll ne may lu toll na Ousmane Sonko ba ñoom ñaar moom sax du songoog moom ci élection ndax moom du bokk waaye ba Ousmane Sonko wàcc ci terrain bi songo kam war a songal ba yenn ko ba biir weex mu dóor ci suuf ndax noonu lay dem incha allah. gis nga. Euh, léegi nag baal ma ma daaneel Moustapha. bisimilah El Hadj Tall Ngol Ngol képp koo xam ne ak ñi mel ne moom. ak sëriñ sii nga xamante ne ñoo jógeen di jabali sa ngañ jëmb ture képp koo xamante ne amoo audace amoo courage mën a taxaw ak Macky Sall wax ko dëgg. mais kon noppi. ci su fekkente ne say kàddu gën a rafet noppi kon tànnal noppi. Mhm. bu say kàddu gën a rafet noppi yow yow noppi rek nga war a def hmm. mu wax ni dara du ci dëgg lépp ay nar la te it maanaam réewande weesuwul ci njabootu Serigne Touba nga di ci tànn ñoo xamante ne ñoom ngay wax ne ñoo ànd ak Serigne bi ak ñu àndul ak Serigne bi Serigne ci Ahmad Bamba Khadim Rasulullah daa wax ne. askanu Mbàkke ñaar yi dama ko fekk ci ñoom. Hmm. nangoo toppante ak mokkal alxuraanul karim hmm. loolu loolu jamono lu mu yàgg-yàgg changement boobu loolu changement boobu du am mukk saa yu ab jotaay amee ku dugg si ka war a jóg ci askanu maam maaram xam ne nag moo war a jóg jox kilifaam bu toog waxantuma laaj nag autorité suprême du mouridisme Cheikh Mountakha mi ga xamante ne daa baax te yàgg ci hmm. Cheikh Mountakha mi nga xamante ne dafa laabir yàgg ci hmm. Cheikh Mountakha mi nga xamante ne dafa yàgg taxaw murid yëpp te yàgg kooku amul kenn koo xamante ne am nga benn atome de rébellion bu nekk sa xol par rapport ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ba tey rek li xewoon léegi mooy génne mbir ci contexte di ko dugal faneen daal le but de nuire mooy li xew. li am dëgg-dëgg mooy militants yi Pastef yi nekk Touba ak Mbacké ñoo taxaw ne Macky Sall sunu droit bi ñu constitution bi garantiral dañ koy jël par force Macky Sall lànk nit ña mer fipp daja ak ña fa teewal Macky Sall coow juddoo ci wa taqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa coow nag bu juddoo. li tax yàlla ay tere fitna mooy fitna bu tàmbalee kenn ku ne xam na fa muy tàmbalee waaye kenn xamul fa muy yem fitna ja ma nga tàmbalee ca bureau préfet mujj ca mbedd Mbàkke. dëgg la àgg ba ñu tentative d' ñu tiré sur la voiture di du président Ousmane Sonko. loolu nag koo xamante ne amoo fit amoo jom amoo ngorog liire mbir yi ni mu amee ndax foyer de tension fa mu doon xewee ak fa Ousmane Sonko nekk. ñoom ñu ngi ci biir Mbàkke ak buntu Mbàkke président Ousmane Sonko ma nga ci jannatul ma parce que lay lay dégg bout de kenn déggul mu wax kenn déggul mu mu digle kenn déggul ñi ànd ak moom wax benn baat boo xamante ne day woowaa Touba ci lenn du dul ak dal noonu la duggee Touba visite yi def Touba ci ak dal la ko def. ba garde du corps yi ma àndal sax. bu buñ bousculer nit da ngay gis moom mooy téye sa loxo ne la bëgg bousculer. non loolu dinañ ci ñëw en plus en détail si ñëwaat foofu moom comme yaa ngi woon ca sur place ànd ak ànd ak présence loolu moom dafa nekk point boo xam te ne ci kanam dinañ ko gën a développé nga nga vraiment nga nga indil ko point par point. loolu moom dina ci kiiwaat. sëñ naa euh, balaa yow li ñu doon wax nii par rapport ak man toujours dama bëgg a insister ci euh, bodd bi nii bodd yenn yenn mbokk taalibe yi di leen ci yoon bi yow yow loolu noo ko gisee daal par parce que juste. ñoom am na benn point de vue Moustapha maanaam mmh. état du état du Sénégal yi nag maanaam mmh. day firil wax mu nekk seen bëli gi mën a gul a jàll non du jàllagum sax ndax dañ koy biis du mën a gul a jàll léegi nag mmh. loolu ñu instrumentaliser sagari nit yi di leen wax loo wax yu rëy yi waaw am na ci keneen sax ko xamante ne ko ma ndax fàtte nañ ko ndax Moustapha Diakhaté xaw ma ndax dégg ngeen li mu wax xaw ma ndax euh, Jean Michel joxoon nañ ko élément bi mais moom bëggoon nañ seen Cheikh Thioro suñu rejoindre ci kanam bëggoon nañ trop moom mu wax ci tamit parce que daanaka même wax yi waa ji wax la wax donc da ngay gis ne en fait dañ leen jox ay éléments de langage. ne dañuy toog soo seetloo saa ñu defee benn manifestation wala dara xew dañuy mel ne ñu kaw a dëgg léegi duñu wax duñu wax duñu wax jékki-jékki rek kenn ci ñoom génn wax dara rek ñëpp topp ci di wax donc dafay mel ne dafay mel ne dafay mel ne yëfi yëfi gone la daal donc bàyyi laa loolu yow ban jàngat nga ci am. waaw euh, Cheikh Moustapha man euh, sànq da nga wax lu am solo bi ngay analyser xam nga yow comme euh, yaa ngi yëngu borom xam-xam nga ci mbind mi ak ci ay wax donc yaa ngi gis ci forme bi rek yaa ngi naan dafay jóge fii dem fële et cetera di wax ni moom warul wax waaye man li mu ci remarque bi ma ci def rek moom mooy dans le fond en li muy wax naa li muy li muy wax ci ci ci ci ci extrait boobu noonu daal. benn instant sax may naan la nañ koo gaawal mu jeex ndax bëgguñu woon mu yegg ndax li muy wax dafa ma doon sonal waaye li ci amoon solo dëgg-dëgg mooy bi nga déggee bi muy wax li muy wax mel na kuy wax koo xam ne li muy wax da koo naqari waaye fa mu daanale day tax ñu xam ni ku for mooy wax ku ku ku am ku muy jàppale mooy wax. ndax finalement ci tàgg président Macky Sall la mujjee ak ci di wax ni képp ku ni Macky Sall nitu fitna la képp ku ni Macky Sall def fi dara nangam ak nangam. nañ ma saaga donc kon kooku xam nga ni la mu doon wax amul te it euh, Cheikh Oumar wax na lu am solo loo xam ni wax na ko ci biir wax ji mooy wax yoo xam ni lu ñàkk ñàkk teggin la ci wàllu daanaka moom lim ñuy lim ñuy reproché ak moom la def. wallaay wallaay gis nga gis nga Abdoulaye dëgguma la. balaa mhm. dëgguma la loolu toujours dama koy wax bokk taalibe bi mhm. maanaam jàpp ne am na kenn koo xamante ne mën ngaa léegi dafa wax ndeysaan bu tudd baat bu ñàkk teggin tudd tur sëriñ. dëgg la mhm. dëgg la du ma du ma du ma du ma ci jaaral sëriñ sëriñ bi maanaam darajat yi taalu la wax wala sa tan xafit ba man naxaa minal wara xafdi xufit te hmm. loola ñam ko doon wax ne sama daraja yàlla moo ko yëkkati te képp ku jàmmaarloo ak man yàlla moo lay toroxal ñam jàmmaar ñoo ñooñu amoon nañ droit de vie et de mort ci kawam kon tey bi ba réew mépp sukk ci ay tànkam kan mooy tudd baat yooyu di tudd Cheikh Ahmad Bamba Xadim Rasulillah ak ba hmm. agee baatu dafa bëgg yàq yoon bi sëñ bi baatu yàq ku ko tudd jëmale ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa gëmoo Hmm. Ah, biraazuman baarazani biraazuman yubaarisul muntaqimal baarizaman sëñ bi hmm. Cheikh Ahmad Bamba ma Rasulullah kooku lim liggéey waaw bofte gi wala dafay des kenn mënu ko yàq maanaam di ci duggee di ci duggee boo toppee boo toppee extrait euh, père ngol ngol bi man leer na may def ci tàng xam naa ni tàng dafa nga am aw tàngoor parce que effectivement jàpp ne kenn mën naa yàqal sëriñ Tuubaa loolu ñàkk gëm sëriñ Tuubaa mi mën ne nga jàpp ne ne nga jàpp ne Euh, ci ci comparaison n'est pas raison nga jàpp ne am na ko mën a am accès ci yàlla ba wàññi pouvoir am comparé mu Sëriñ Tuubaa ak yàlla waaye li ma bëgg ba teg ko ci béréb benn jaam mënatu ca dara di ci duute jàpp ne nit mën na ca yàq dara loolu ñàkk gëm Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasulillah ndax moom wax na ne képp ku ko song yàlla ngay léewtoon mooy biraasu man barazini biraasu man yu baarisul muntaqimal baari zaman wér na maanaam mais gis nga foofu sax sori na moom xëy na li muy wax amut xam nga bu doon dafa am dafa am ñoo xam ne dañoo jóg ngir yàq Touba songu Touba yàq mm. mais li muy wax amut te Cheikh xam nga xam nga baatu baatu dañoo bëgg a damaa def corrélation bi ak bi xew mm-hmm. da ngay dégg ko la yónnee xam naa bu baax voilà loolu laa ci jublu ndax ñoo xam ne ñi ngi naan bëggam Serigne Touba du émettre du du waaw mais loolu sax du xam nga ñëpp mën nañu bañ am sax tolluwaay boobu noonu waaye euh, li wérte woon mooy li muy wax moom amut maanaam li mu ci bëgg wax sax dem mu ci dem moom ci baatin ba ak sax ci doole sëriñ bi mais damay dem ak moom rek ci contenu li mu wax maanaam keroog la xew Touba Cheikh Cheikh Thioro malheureusement nekk fii mais bu ñëwoon sax dana mën a tontu ci te yow it Cheikh Omar yaa ngi fa a tontu. Hmm. Euh, Cheikh Cheikh Thioro wax na ci lu am solo di wax ni Touba kilifa goo xam ne si nii waa réew mi bëgg nañ ko waa Touba bëgg nañ ko yàgg naa ñëw Touba waa Touba di ko tàccu waa Touba génn di ko sargal di ko teeru hmm. du ko yuuxoo Macky euh, Ablaye Wade waa Touba yàgg nañoo génn di ko di ko tatagal parce que duñ ko bëgg Karim Wade nag son xëy na fi Sonko toll nag sax dafa gën a ëpp dayo loolu. Mhm. Macky Sall nag waa Touba dañ koo bëggut waa Touba dañ koo tatagalul waa dañ koo teerewul xëy na looloo tax ñàkk lu mu ko amul xëy na moo tax ñu bëgg indi loolu di wax ni waa dañoo génn ci politique te loolu amu fa ndax sëñ euh, Euh, ndax soo Sonko dafa nekk ci barabu ku tedd kii ba bàyyi mu Mountakha génn lu yàgg ba nopp muy doog a génn te ba mu génnee yow mii jotaay ba fekk fa la fekk xam nga keroog maa ngi naan jërëjëf Serigne Touba étape la étape la après <laughs> étape boobu dinañ ci ñëw après. waaw loolu dinañ ci li muy wax amul quoi. d' ailleurs man peut-être li rek waa par rapport ak li nga loolu xëy na ça fait xam nga. Hmm. waaye hmm. ku ne xam na ni. Euh, euh, euh, waxin la dañ ciy reetaan waaye nag débat la boo xam ne mi ngi am daal ñoo ngi dalal hmm. question te tey suba am tey bi ñuy commencé sànq am nga loox lu am solo maanaam nanu yaatal dënn yi di waxtaan te dégloonte te bañ a te bañ a boot di konte maanaam di bañ a génnee kenn ci yoon wi wala di mën a wax kenn pas-pasam newul fii wala ne fee ndax mbir yi dafa jaxasoo sax boo xoolee maa ngi tooñ tey naan Thierno Thierno Moudou Salif man su ma yeggee tey ci émission bi dinaa dal ci kawam. xam nga mm-hmm. Thierno moomu tey euh, wax nañ ko lu ne jëmoo woon ci ni ko xëy na. da nga doon ko mm-hmm. ay murit ko doon wax. Mm-hmm. Euh, te it bi mu xawee mel na kuy jàppale Ousmane ba ba ba ba rafetlu ñëw bi nga xam ne Ousmane ñëw na ko biir Touba ak taxawaay bi nga xam ne Ousmane taxaw na ko biir Touba biir jumaa ji nii na ñëpp wax jërëjëf Serigne Touba boo seetloo ñaari fan yi la ko ay yeneen taalibe ñëwaat di dal ci kawam di ko wax ni ko. ak page boobu nga xamante boobu nga xamante ne. li ko da ngaa jaay sa ngëm da waa Pastef da nga leen a ragal et cetera. donc kon loolu man xëy na peut être conclusion boobu laa ci def mooy di woowaat mbokk taalibe yi ak di woowaat même euh, Pastef ak euh, même les sénégalais suñuy moroom yi ñu nekkal ci Facebook bi di wax ñëpp ni duñ ko naan ak dal gën a waxtaan. te bàyyi dalante bi ak boddigante bi ak waxante yoo xam ne si ni xëy na Macky Sall sax moo fii nii ndax ay xeet dem na ba léegi boo gisee nit li ngay njëkk xool mooy santam lu mu sant nit bu jàppalee Macky Sall wala nit bu jàppalee Sonko li ngay njëkk xool mooy naka la sant wala naka la tudd euh, nit bu la bu la maanaam réew mi loolu lépp Macky Sall ko fi indi nit bu ne la am naa liggéey wala ñàkk naa liggéey sax li ngay njëkk laaj mooy da nga naan ko ndax ne doo ko bànnu nga bokk ak nangam yooyu Sénégal mosuñu ko xam Macky Sall mm-hmm. bii fi am tension bii am Macky moo ko indi donc kon Moussa Ba su bañ a xabaabal rek naa la naa ma yemale foofu noonu ci ci moyen boobu noonu merci beaucoup léegi léegi ci point boobu pour pour avant ñoo jàll fii beneen point bi daanaka sorante wuñu euh, ñaari leeral laa ci indi euh, bu njëkk bi mooy li mu waxoon Serigne Saliou ne ne Serigne Saliou dafa xam Abdoulaye Wade ne xanaa xamoo Sénégal ci ci ci ci ci Macky Sall lay defaroo loolu su su doon lu wér li fi xew ci Dangote sëñ Moustapha Saliou du xew sëñ Moustapha Saliou du am taxawaay bi mu taxaw bi mu am ci ci digganteem ak Macky Sall wala bokk yow yaa ngi woon ci non non parce que loolu c'est important parce que xam nga ah yoon bi dafa bari ñoo xam te ne dafa bari kilifa yu ñuy waxal ay wax te yàlla xam ne ne wéru nit ki dem ak fitam rek sosal ab kilifa wax ne moo wax li ci nit léegi nit ki am na ñoo xam te ne loolu day dox seen xel mooy dox sa mayen quoi gars yi dañuy dox ci mayenu nit ñi léegi Serigne Saliou xanaa su waxoon loolu Serigne Soa Saliou dina ci xam dara hmm. waaw donc loolu loolu yanul maanaa taxawul donc nañ bàyyi ñoom ñiy jëfandikoo yoon ba pare di jiiñ nit ñi ñoo ko def loolu première chose la beneen bi mooy benn benn alamaan bu may alamaan si ñu ma ndax sànq def ne def ne Macky na may Sonko li ko Abdoulaye Wade mayoon. Hmm. ma jàpp ne waxin la ndax moom a a xam affaire waaye hmm. Abdoulaye Wade may wut Macky Sall may wut. Hmm. yoon moo may te yoon dafa nekk au-dessus de Macky Sall dafa nekk au-dessus de Abdoulaye Wade loolu précision la rek parce que ñun sénégalais lu ci bari dañ naan. comme suñu jàppee ni tëj ko ci lu injuste ñu naan ñi ngi ñaan ñi ngi ñaan man ñaan bi laa bëgg ñu arrêté parce que dafa nekk loo xamante ne xàqan suñu suñu droit la suñu mm. suñu yelleef la loo xamante ne genre c'est c'est non négociable comme ñu jël mm. Hannibal Jim tëj la ba pare di seet nuñ ko nuñ ko nuñ ko laytaayee nuñ ko excusé ñu fi ñaan kenn dara ñu jël ki ki euh, nit dof def ko noonu duñ ñaan kenn dara soit ñu bàyyi ko voilà soit ñu continuer ci ci lu ñu def loolu ñaar yooyu laa préciser léegi beneen bi mooy damay sànni xeer sama beneen jëwriñ ah. mooy sëñ Samba Diop dama koo jot sànq <laughs> ci biir waxtaan bi sëñ Samba Diop suñu jëwriñ ñoo ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax a baax eh, nekk ma fay eh, donc may waxtaan ak moom mu leer ma ne moom eh, sëñ Abdoulahad mii wóor la réew la Euh, yeneen mbokk taalibe ay wóllëreem la man mii wóllëreem laa dañuy échange dañuy waxtaan te ñaare si waxtaan daanaan waaw euh, waa Pastef bi da ngeen a bañ critique da ngeen a bañ critique affaire yooyu noonu te su naan dañoo bañ critique danaan man bokk ma ci si wax ak Abdoulaye danaan moom bokk ci suy wax ak beneen mbokk taalibe danaan moom bokk ci donc finalement finalement finalement sëñ Samba Diop est-ce que bañ nañoo critique est-ce que ñu bañ nañ critique te loolu dama koy boole euh, sëñ Omar ci li ñuy wax li ñuy dëkkale Pastef ak violence man mm. épisode sëñ sëñ Cheikh Thioro bi mu demee TFM daf ma choqué wax dëgg yàlla pour man nit ñi rendre ñu compte loolu ni mu ni mu anormal le fait que cinq journalistes yi wër la di la jiiñ posé wuñu la question dañ jiiñ ay mbir di la jiiñ ay mbir yu garaaw ma baal da ma baal rek ma ma dugal foofu benn benn phrase hmm. mooy maanaam Pastef dafa judd ci oppression ak injustice hmm. du prône violence défense lay prôné parce que su ko deful dañ koy dañ dañ koy dañ koy rey. macha allah <laughs> parce que mi ngi juddoo ci maanaam kilifa gi. kilifa gi maanaam euh, euh, Cheikh Ousmane nekk citoyen du Sénégal nekk un fonctionnaire émérite commis de l' état. ñu xëy suba man koo dax parce que daa wute gis-gis ak président de la république. ñu allah àndoon ak moom ci bokk ci liggéey bi te bokk ñoom fu nekk ñi ñu ëpp ñoom ñu def ñu mettre leen dans le frigo. Euh, Pastef dafa juddu. dans hmm. dans l' injustice moo tax dafa xëpp rek commencé ko commencé défendre boppam. mooy li may wax koo xamante ne da ngaa juttu mu la doon jéem a kut far yàlla dogal deewoo soo demee nag ba doon waxambaane di faj gàcce fu mu la romb dina la jéem a rey. ñi bañoon Pastef démb ak bëgg démb bu mu juddoo ñooñu rek ñoo ko bañ ba fii may wax ak yow nii te it ba keroog ba fii may wax ak yow nii musta nekk ci elaawu maanaam ci def action ci ci ci xanaa bu bu defee action rek sur le plan intellectuel Hmm. sur le plan sur le plan tactique maanaam ci loo xam ne sur le plan le prospectif ci luy jëmale réew mi kanam hmm. waaye saa yu amee ab songo rek maanaam ci réaction lay nekk absolument hmm. ci réaction lay loolu muy dëgg maanaam ku ku ku defut lecture bi rek maanaam amu objectivité ci li ngay def waaw bisimilah bari waaw Cheikh Cheikh Cheikh macha allah li nga euh, euh, wax sànq dafa am solo lool Euh, Cheikh Massamba Diop maa ngi bu baax moom du suñu jëwrin aussi euh, loolu nga wax noonu euh, dafa yaatu daal dafa yaatu xëy na li ma wax sànq Cheikh Moustapha moo moo moo ko moo moo koy moo koy expliquer maanaam défense bi Pastef nekk nii. Mhm. ak ni ñu mel na ñu rigide ñi nga xam ne loo ñu wax ñu delloo la ko. te boo tontoo nit ki bu tontu wa safee mu ni la da nga maa da nga maa da maa da ngaa buggul critique hmm. wala danga ngaa da ngaa xaw a da ngaa tàng daal. da ngaa da ngaa violent. da ngaa violent xam nga euh, Moustapha dafa am benn benn benn benn euh, proverbe bu wolof. boo xam ne hmm. euh, ñemewu ma ko wax sax waaye xam naa bu fekkee xam nga ko su ma ko commencé nga yëgaleel ma ko. Ah. bu wolof di wax naan cin baxut. gën waa tàng bënnul. ci cin noo cin baxut. gàtt waa tàng. voilà gàtt ma lakk. gàtt ma lakk wala. <laughs> voilà loolu wolof a ko wax. cin gàtt ma lakk. gis nga euh, ab ab la ci baat bi mais loolu moom la tubaab di wax naan il a point effet sans cause. voilà gis nga gis nga Abdoulaye ñun Abdoulaye man maa ngi fàttaliku bi ma doon gone. Uh-huh. maanaam daanaka daje xamante ne dañ lay wax ne la maanaam boo jàngee ay magi murit. Uh-huh. bala ngaa faatu maanaam fu baatu tubaab nekk sa yaram dañ koy xay dañuy xar sa yaram ba jot ko jëlee ko. est-ce bo phobie <laughs> eh. boobu phobie boobu murid yi am ci yi xam nga lu ko war. Ah. mooy indice bi tubaab yi teg sëñ bi. waaw xam nga waaw. mais gis nga loolu rek la xam xam nga maanaam mbir mu nekk même loolu day dépendre ci aw non man ngi dañoo mën a jàngale dañoo mën a jàngale ndax loolu yëpp noonu ay stratégie de défense la woon. pour voilà intellectuel yi aussi. wala intellectuel arabisant yeeg ñi newoon ci dëkk bi doomi mag ñi ak doomi soxna yéeg waa dëkk bi luñ jàng-jàng aussi ñu bañ a jël jikkoy tubaab ba loolu ay stratégie de défense la woon lu am solo la voilà mu ñëw ci détail bi nga doon wax rek par rapport ak évolution bi am nii daal maanaam bax boobu cin lii baax ah noonu ma ko waxee noonu bax boobu cin lii baax moo ko waral xëy nga euh, dafa am benn borom xam-xam bu waxoon lu am solo euh, benn borom xam-xam bu ñuy wax yaakaar naa Ali Mazraoui dafa bind benn téere bu ñuy wax je triple héritage je hmm. triple héritage boo ko xoolee dafay wax ni à nit ku ñuul ki dafa doon dafa am ñetti ndono lenn li daf ko jëlee ci colon colon yi mooy tubaab bi lenn li mu hmm. jële ko ci l'islam ndax lislaam dañoo dab aussi hmm. lu tuub gi yàgg-yàgg ay tuubeen lañu dañoo dab dañu fee fekk ñëw fii waaye it nee na beneen ndono bi dañ ko donnee ci suñu tradition ak suñu aada Mhm. nee na le vrai problème de l' actuellement mooy ci ndono yooyu noonu te très nga gis koo xam ni dana nangoo boole ñett yépp lenn lekk mu tànn ca la ca baax ba doxal ko. Mhm. neen da gis groupe boo xam ni dañuy bëgg a jël lislaam képp képp bàyyi ndonal aadali bàyyi ndonal intellectualisme bi ñu tonn ci tubaab yi wala nga gis koo xam ni da bëgg a doon ab tubaab képp mhm. soo ko waxee diine mu lànk soo ko waxee mag ñi mu lànk wala nga gis koo xam ne nag moom ci dafa ni la day jellu ca aada ya du du du du nangoo ànd ak lislaam du nangoo ànd le mouvement Kébémer et cetera xam nga euh, loolu tey dañ koy retrouver biir Pastef xam nga keroog dem si ci njax Cheikh Thioro ndeysaan xam naa ne xam nga nag moom jàmbaar la te defee dafa mën a tontu yi politique maanaam kii la daal Euh, jàmbaar la ci tontu ndax la mu la mu wax ndaw si xëy na ndaw si da ko énervé rek moo tax tontu ko ndax xëy na tey Chawma xëy na tey danañ la wax loo xam ni mi ngi ci yoon wi ñu ni la ñu ni la am na ay murid yoo xam ni dañuy def nangam ak nangam donte xamoo leen sax da nga tontu dañ ci solo li mu ko tontu noonu daan ko du ma la tontu ndax ñooñu xaw ma leen xëy na. non xam nga loolu loolu loolu du critique no du critique du question. non critique jàpp la. waaw mais mais laaj bi sax mais laaj bi la boo xamante ne di ko tontu maanaam day da ngay cliché bi nga xamante ne moom lañ bëgg moom lañ bëgg a teg ci kaw jàpp ni hmm. dama jàpp ni am na am na am na loo xam ne ñi ngi koy wax hmm. dëgg la dëgg du dëgg loolu beneen loolu débat loolu mooy dëgg-dëgg débat bi hmm. waaye comme ñu ngi koy wax rek na nan ci nan ci nan jéem a mu expliquer lan moo ko waral te li ko waral aussi c'est très normal dañ koy nangu ñun biir Pastef parce que réew moo xam ne si nii li ma wax sànq ba ñu waree def ak jeqiku ba defuñu ko ba ñu waree jël li nga xam ne xam nga Moustapha bala ngaa jeqi ab ceeb da seppi non mm. da ngay seppi xam naa sama mbokk njóobeen dina exemple ceeb bi may joxe da ngay seppi jël lijum yeeg yëpp teg ne doog a doog a dugal boo mm. nopp di doog a jeqi Sénégal tey jafe-jafe bi ñu dal mooy dafa am ñoo xam ni ci ñetti héritage yooyu moo wax noonu am na ñoo xam ne daanañ wax wax révolution ni dañ fee war a jëlee sax diine yoo xam dañ koo doon muy christianisme ak islam ak nangam am na ñoo xam dañ doon wax nii waaye suñu maam yi li ñu fi bàyyi amul solo am ñoo xam dañ naan tarixa yi nangam ak nangam loolu yooyu yëpp noonu tey nit ko ki njëkk a ñëw Ousmane Sonko chance am ak aussi manque de chance am mooy mooy ki xale bi njëkk a ñëw di wax wax joo xam ne si nii daanaka waxi tubaab lay nduru ndax ci baatu kàllaamay intellectuel la koy wax donc kon ndonal tubaab laa ngi waaye boo bu xóotalee dëgg-dëgg da ngay xam ne mag ñi rek lay wax waxi mag ñi lay wax benn vidéo bu am solo boo xam ne xëy na Jean Michel après dana ci ñëw di wax Ousmane Sonko di defendre la patriotisme di ko jàngale ci Serigne Touba Khadim Rasoul Ousmane Sonko ci boppam loolu 2019 la man vidéo boobu mosuma ko sax bàyyi xel mais dama mës a gëm ni Ousmane dafa ñëw taxawee taxawaayu koo xam ne si ni dafa nangu ñetti ndono yépp ndonoy aada ji ndonoy tubaab bi nga xam ne si jël nañ ko si muy intellectualisme beeg njàng meeg ni ñu koy waxee nii ak ndonoy mag ñi loolu nag boo ko defee ba pare di wax révolution di wax soppi di wax changement c'est très normal nga am tubaab di wax ni du poids mort danañ dañoon drainer beaucoup de monde parce que am na ñu bëri ñoo xam ne ni li ñu jàpp ni mooy coppite gi jàpp nañ Ousmane na ko yor ak quel soit lu mën a nekk ci ginnaaw xam nga am na ñu looloo tax tey kémit yi ne ci biir euh, euh, ñi nga xam ne jàpp nañ ni mag ñi dañuy tardeel ak nangam ne ci biir nangam nangam looloo tax nag ñun ñu Pastef ñu leeral ci sa sa ngañ demba loolu moo am na solo ci idéologie boobu noonu te tey keroog maa ngi dégg euh, ab Ousmane Abdoulaye Baro wax ci leeral bu am am solo boo xam ni dafay baax ñu koy fàtte ci wax ni mm. idéologie de Pastef teguñu ko ci diine de waaye niñ ko tënkee c'est mm. tellement hybride ak euh, tellement bien fait ba kenn ku ne mën na koo jël mën koo dëppaleeg njàngale mag ñi nga xam ne si ni yow loolu nga gëm mooy sa diine Mm-hmm. moo tax njàng dem ba la mu wax sax donte doo ko doon jëme ci taxawaay yi Ibaadu Rahmaan nangam ak nangam ñun biir passé bañuñu ko ndax ce matin am na koy fàttali di wax ni Sénégal démocratie bi ñu nekk nii euh, nit sax mën na fee jaamu euh, xajam bu ko neexee ndax kenn mm-hmm. laïcité lañu wax te laïcité boobu boo demee ci article cinq boobu mu nga ca biir mu nga ciy wax di wax ni kenn ku ne mën ngaa jaam liberté de culte bi ngi ci article cinq bi mu wax noonu donc kon li mu bëgg mooy parce que actuellement mu c'est la seule réponse bu nga xam ne si nii dafa xaw a dajale li nga xam ne moo ñu mën a génnee ci buuta gi ñu nekk nii muy tënk boo xam ne tubaab bi tënk nañu tënk nañu ko yenn yoo xam ne am nañ ko ay jafe-jafe aussi suñu digganteeg suñu diine suñu digganteeg suñu kër diine yi parce que xam nga ñu fi doon waxtaan jamono yële di wax ci critique bi di wax ni lan moo waral jaxasoo xam nga père Ngor Ngor tey am na lu mu wax lu am solo loo xam ne ñun Pastef ñun rek ñoo ci wax lu leer ñun ñoo ni dootuñu nangu benn président di jël alal yoo xam ne du ko leeral di dem ci ay kër diine di wax ni da leen di tabaxal wala dama leen di defal ay teraanga yoo xam ne ëllëg seen kersa wala seen teggin sax mën nañ mën nañ leen a may gêne ñuy wax la sa bopp hmm. ñu ni dañuy institutionnaliser loolu seen kër bi nga xam ne si ne dañ ko war a am ci biir askan wi dañ koy institutionnaliser fexe leen dootul nekk lu ñu leen di may waaye day doon seen droit bu ñu leen di jox day doon seen droit bu ñu leen di jox ba pare nag leer am transparence xam ne fii la jógee fii la dugg nga xam ne si ni kenn du ko politiquer nga xam ne seen droit la loolu ay leeral la yoo xam ne si ni tey Pastef moo ko indi président Ousmane Sonko di ko prôné donc loolu ne am na suñu diggante ak suñu kër kër diine yeeg nangam a a monopoliser la parole loolu laa bëgg a wax ni xëy na moo tax tey Pastef mu mel ne aimant mel ne AC boo xam ne day xëcc ñu bare bëgg ñoo xam dañoo bëgg ak soppiku ba tax tey ñu ci gis yëngu-yëngu yu bari yi nii ñu ciy gis ak ñàkk déggoo ci suñu waxtaan ak yooyu ba ci ñun suñu biir léegi-léegi ñu déggoo ci concept yi ñu déggoo ci li ñu war a euh, def ak nangam mais loolu mooy mooy mooy mooy du dundal démocratie loolu mooy dundal euh, askan ñu ñu mm. ñu tàmm di am opposition suñu biir tàmm di mën a li Macky Sall di bañ te tubaab yi nangu ko Moustapha yow gis nga Paris barki démb tubaab yi dañuy dem di manifester wu ànd ak seen soxna jàpp ci loxo yi ànd ak seen doom teg ko ci kaw man loolu lay rêvé ñu àgg ci dëkk boo xam ne Ousmane Sonko day bàyyi nit ñi samedi jot ñu dem place de l'Obélisque naan ko li nga def jaaduwul mais nag benn violence ànd ak ànd ak euh, euh, jàmm. Hmm. ba nit ñi wax seen seen seen seen i seen ci daal xam nga. waaw loolu daal laa yaakaar ni moo waral tey parce que ñu xaw a toll fii ñu toll nii. xam nga xam nga dafa am Ousmane Sonko lu mu waxoon ci livre bi mooy objectif bi mooy c'était d'atteindre une masse critique des citoyens boo xam ne ils sont suffisamment éveillés sur les questions de l'heure Cheikh Anta Diop waxoon na théorisé woon na ko avant damaa jàpp ne actuellement da ngeen di seetlu suñu defee micro trottoir xale buñ tendre micro mu wax li doxul Sénégal ak li ñu war a soppi ak Sénégal lu muy doxee da nga yéemu ci yàlla pour dire que xale yooyu noonu kenn manipulé la donc li nga wax noonu la léegi ku wax xale bi gën a ndaw mën naa ju tontu la tontu boo xamante ne mën naa ànd ak des fois mën naa ñàkk teggin parce que nit ñi bokkuñu background bokkuñu jaar jaar mhm. voilà bokkuñu bokkuñu yar bokkuñu dara donc am na ñoo xamante ne des fois dinañ ñàkk teggin du ci ñàkk mbooloo la ni ko soxna Aminata waxee léegi nii diversité moom source d'enrichissement mutuel la loolu mënta ñàkk te mbooloo boo gis diversité boobu da ciy am donc loolu mooy première chose bi mooy loo wax léegi nit ñi am nañ fu ñu am nañ argument yu ñu la tontoo soo waxee dëgg xam nañ soo waxul dëgg xam nañ loolu mooy première chose bi deuxième chose bi man dama bëggoon taxaw sur la notion de violence violence de violence physique kese dafa am violence psychologique dafa am violence économique dafa am violence sociale su ma jëlee misaal bi gën a parlant ci man gis nga euh, sëñ Jean-Michel mi ngi wane nombre de détenus politiques yi nekk au Sénégal actuellement lii c'est du jamais vu waxuma la gendarme bu ñu rey kenn xamul lu ko rey waxuma la ay jeunes étudiants yu ñu rey amul suite léegi soo jëlee par exemple yeneen affaires yi mooy problème de gestion yi am. dina jël ci misaal Covid 19 bi adduna bi yëpp gouvernement yëpp nekk en position nan laay def ba dimbali sama askan nan la ñuy def suñu réew mi du du ba ba économie du suux France soo jëlee exemple ñu jël politique bu tudd euh, quoi que ça coûte ñu jàpp restaurateurs yi di leen dimbali di leen may xaalis di leen jàppale di leen lebal à taux zéro et cetera et Italie nga gis noonu États-Unis noonu dëkk yëpp taxaw taxawaayu nan la ñuy dimbale suñu askan ñun pendant ce temps là la ñu ngi seetaan à ay wayjur ay kilifa ñu leen di dàq ci mbedd bi ñuy daw nit ñi di daw di njëkkante ay bus pour mën a ñibbi seen kër pour ñu bañ leen a toogal ci mbedd mi ñu jàpp ay nit di leen tëj prison pendant ce temps là un organe de contrôle de l' état nous apprend suñu état pendant ce temps là am na un Moustapha Diop qui est devenu milliardaire am na wax nañu un un un euh, le ministre de la santé là. Euh, Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr def na lii jënd nañ ay pots de fleurs à deux cent millions. ñu wax ñu ne sama maire Moussa la moo doon retiré quatre milliards et cinq cent presque. maanaam loolu violence. violence gën violence gën te rëy loolu. pendant ce temps-là dans ce pays-là des jeunes qui prennent des pirogues qui passent par le, le désert pour génn pour wuti espoir pendant ce temps-là ñooñu ñu ngi devenir milliardaires yoo xam te ne ils retirent des millions par jour donc suñuy natt violence encore une fois li ma wax sànq am na sujet yoo bu ñu nangu ñu tëj ñu ci dégg dégg violence au Sénégal mooy ni ñu yoree suñu ni ñu jàppee nit ñu jàppee nit ñi di rey. Moustapha doguma la doguma la mais même li ñu tuddee violence nii nii li nga li nga xam ne xew na nii nga xam ne dëgg-dëgg violence la kay effectivement ñoo ngi daj ñu ngi toj ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi xataraayu ñoo ngi xataraayu jàkkaar la moom pour défendre suñu bopp loolu Moustapha loolu. Hmm. Euh, euh, maanaam dama bëgg wax nii dafa dafa dafa jaadu. dafay dafay dafay dem bay bëgg a jaadu ndax xam nga sànq maa ngi naan la maa ngi lay jox misaalu di la wax naan la Moustapha tey bu ma la fekkoon nga toog sa kër tey ma romb laak aw ñam ni la ñam wii de dama koy lekk ba mu jeex bu bu jeexee ma sotti ko ci mbalit ma jox ko euh, xar yi te yow yaa ngi xiif bay bëgg de foo jaar fépp ñëw dal sama kaw bu dee xiif nga lay bëgg a rey loolu moo xew ci réew mi réew moo xam ne munoo faj mënoo jàng munoo faj say lekk munoo naan ndaw boo déggee ñu naan ay milliards ay milliards maam ñoom ils ne se rendent même compte de la de, de, de la gravité de la situation boo déggee xiif gi de la romb nii maanaam da nga naan ñii dañ ñoo yem ba noppi nag wëlbatiku ki nga yaakaar ni ëllëg moo mën a soppi dëkk bi ki nga yaakaar ni ëllëg moom nga yaakaar ni xëy nag bu ñëwee mu ñu ni la du bokk dañ koy tëj dañ koy faagaagal dañ koy def naka su dul. di exercer ci kawam di exercer ci kawam une violence inouïe. une violence psychologique. léegi léegi ndax yiw koo xamante ne diin rek lañ la xamee. ak njub rek lañ la xamee. ñu jëla dugal ci débat de caniveau yoo xam chaque jour ñuy wut ay état ci boppam mooy sponsorisé ñi lay saaga. moo tax nag loolu loolu ku ci ku ci noppi. complice nga te ku ci noppi naafeq nga. léegi Cheikh Omar loolu bu ñu ko defee faw nga mer. te wolof day wax ko ku mer dof. ku mer taxali ko sa sago. xale yii nag actuellement man am na ci ñoo xam ne dama leen a gis man ñu bokk ci Pastef man xam naa ne ci ndof la ñu nekk te ndof googu xam na moo ko waral mer. Mm. mer rek lu ñu ci Macky Sall bañul bañuñu ko si. déedéet ci mi ngi koy wax sax Moustapha Diop nee na moom gis na xale yi ci ay bëtam nee bi mu gisee xale yi ci ay bëtam nee li muy liir ci bëti xale yi xam na ni ñii. daanaka ragaluñu dee. te foofu la réew mi toll ñoom nañ ko xamee noonu. Mm-hmm. xam naa balaa ñoo xam bi étape bi nag mooy li ma la doon wax Seydina Omar. xam naa dañu bëgg nga nga vraiment nga dellusiwaat ci étape de Touba Mbacké bi man noon laa koy woowee. nga dellusiwaat ci en en longueur vraiment. Euh, depuis le début. waaye xaw ma ndax euh, yow jotoon ngaa topp li li Moussa Wade ah. d'accord. Jean Michel nee de. dix neuf minutes rek moo des waaw. waaw baax na xam naa ñu ñëw ci que boobu dafa am solo. ñu ñëw ci yi jàngat ko. Uh-huh. parce que looloo nekkoon looloo nekkoon thème principal bi. Mm-hmm. Euh, xaw ma ndax yow déglu nga si Moustapha Diakhaté wax ci étape Touba bi sëñ sëñu Mar. Moustapha Diakhaté moom damaa seexaloo tudd turam. <laughs> ndax. wul euh, tur euh, sagaru nit la woo xamante ne ku épargne wul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo hmm. épargne kenn Moustapha Diakhaté Touba lay bañ a gis dafa am phobie mu murit hmm. moo tax su déggee ma naan su ma bëgg naa ñu sul ma Touba damay xam ne il fait dans le populisme rek hmm. sagaru nit la woo xamante ne lu dal mak Sall moo ko ndax ak lu ma di xew su Macky Sall bàyyi woon Sonko impôt kon heure bi dina nelaw dina nelaw ba yandoor Mm. <laughs> waaye nag sama borom ba namee mbir faaw da koy ci ay ay sabab waaw da koy jaar ci ay waaye nag état bu Touba bi daal état bu am solo la boo xamante ne lu mot a jàngat mm-hmm. la ca jiitu mooy Touba gi nga xamante ne mak Sall mosu faa gañe ba mu faloo ba léegi ànd ak Mbàkke gi nga xamante ne eh, ñoo ànd jamono bu nekk di fa teg le le di defe ci a métti ci moom mm-hmm. ñoom ñooñu ñoo exprimé wu ci seen écrasante majorité ànd ak le président Ousmane Sonko bëgg ko gëm ko di jëfe li nga xamante ne moom la leen di tegtal ci wàllu politique pare it pour joxe seen bakkan ngir moom mm-hmm. su fekkente ne réew mi maanaam euh, àgg nañ ci extrémité yooyu ci volume de pouvoir u Macky Sall ñoom ñoo ñooñee ñoo exprimer désiru recevoir seen leader politique la indi coow nag mooy préfet ci kaw ndigalul ay kilifaam hiérarchie am ñoo lànk loolu lay waa Mbacké hmm. acte ba nga xamante ne moom la ci président Ousmane Sonko posé suite logique la keroog ba nga xamante ne dem na Kër Massar dégg ngeen baat ba mu wax œil pour œil hmm. dent pour dent Hmm. kon nag Macky Sall duutu ko sàkkal fu muy jaar ak fu muy bàyyi. loolu moo tax mu décidé ne ala kulli xaal dinaa ñëw ndax li ngeen teg ci taabal ji wane ne moo tax mënumaa ñëw dara du ci dëkk kon jaay doole ngeen may def waaye fi mu toll man joxe naa sama testament lu mu laaj dinaa ko ci def. ñi nga xamante ne dañ koo gëm ci politique wane ne moo tax mënumaa ñëw dara ñun ñi nga xam ne dañ koo gëm ci politique te aw yoonam fu mu jëm ñu jàpp ne ñoo ko war a baliser. ndax li muy xeex moom boppam taxu koo jóg ñun ñii ñoo ko tax a jóg askan moo ko tax a jóg ñun ñi ànd ak moom ne ko président il le faut demal fu la soob dinañ la fa jiitu ci ñëpp dagg dem fanaani Mbàkke ñii fanaani Tuuba ban xëyee suba ca bis ba président ñëw avant avant muy ñëw da ngeen déggoo waa Muxaddamatul Xidma pour organisation beeg yëpp nan la demee. waaw Muxaddamatul Xidma après bi bi bi président décidé ñëw rek. waaw may profité ci vidéo bi di leen rendre un grand hommage. Hmm. parce que nit koo xam da nga dañ lay gérer loolu loo xam ne ñëpp a ko bokk. war ngaa fexe ba maanaam yow corruption du la jàpp. Hmm. war ngaa fexe ba mucc ci xupp. war ngaa fexe ba mucc ci xëpp ndax Muxaddamatul Xidma bu fekkonte ne dañoo ragal. Hmm. xupp. kon duñ dalal le président Ousmane Sonko. Mhm. bu fekkonte ne dañoo nangu ku leen xëpp duñ dalal le président Ousmane Sonko. kon gàcce ngalaama doomi soxna yooyu nga xamante ne xam nañ seen euh, mission régalienne. te ñu nekk mhm. ca sëñ Abdou Lahad Bousso maam Bousso euh, maam Asta sëñ Abdou Lahad Bousso Moutalib sëñ Abdou Abdou Lahad Bousso Thierno sëñ Fallou Assou euh, Assou Ndiaye ak booleem sëñ Thierno Mbacke booleem mbokk yu baax yooyu nga xamante ne ñoo taxaw liggéey bi ba mu mucc waaye nag damay damay daal di survolé. yaa ngi yaa ngi tudd yaa ngi tuddu ñoo xam ni. Mhm. ku leen xam. Mhm. ku xam. Mhm. xam xam xam xam seeni maam. xam ni ni ni murid yi. waxuma sax ñi nga wax nii. ñooy xëy na ñi ñi nga ci mën a lim waaye. ce sont les conservateurs de l'orthodoxie xam nga xam nga dafa am yoon wi si boppam moo am taarix boo xam ne xëy na dafa Macky Sall da ko umpule xam nga man Moustapha damay faral di wax ni ñàkk xam taarix. Abdoulaye hmm. dix minutes lañ dese de. waaw waaw léegi xol <laughs> non mu dem foofu nag mu bëgg fàttali bu benn xiste bu ndaw. waaw maanaam ñii kii nii tey uh, Amadou Diop mi mi tere mi préfet bi mi bind nii du ngeen dem Mbàkke du ngeen dugg Mbàkke taxaw ni du ngeen dugg Mbàkke. di ko tere ñi ànd ak Ousmane Sonko ndax Ousmane aussi li ma wax sànq. Mhm. fi mu ne président Ousmane Sonko ay ay doomi soxna. Mhm. ak waa Touba ak ña dëkk Touba ak ay sëriñ. Mhm. ñoo teg ci seen bakkan ni gone gii duñu bàyyi kenn di ko faagaagal. waaw loolu mooy la ma keroog rek. loolu neewoon naa la neewoon naa la c'est un œuf d'espoir. qui sera prouvé par le Sénégal des valeurs jusqu'à éclosion. exactement par le Sénégal des valeurs boobu moo ci am solo. jusqu'à éclosion incha allah. te xam nga loolu dafa am lu may fàttali man ci histoire tuuti. Mm-hmm. Euh, waxi sëñ musa Kat yi ba ba ba ba bi ne waa euh, man ñi du ngeen dem Touba. Mm-hmm. ba muy nettali waxi sëñ Mor Kayre bi. waaw ak sëñ Aliou Diouf Lambaye. ak sëñ Aliou Diouf Lambaye lan la ko wax. waxi sëñ Momar Mané Mbaye. Mm-hmm. wax sëñ a Mané. ak sëñ ka Thiargane waaw. waaw mu ni ko lan mu ni ko. mu ni ko yaa ngi dañuy dem Touba da ngay dem Touba. dañuy dem Touba. folli la tey. ci sa ndomba tànk tey moo gën a yomb lool lii nga wax dañuy dem Touba. ñoo ñoo laaj waaw. dañuy dem Touba. wallaay wallaay foo ci sa tànk tey moo gën a yomb lool lii nga wax dañuy dem Touba. même nit ñi seeni i même ñoo taxawaatoon tey ñu dañuy dem Mbàkke ñun leen du ngeen dem Mbàkke wallaay keroog keroog keroog ca bis ba yaa ngi tudd yaa ngi mhm. aa bisimilah bisimilah cheikh bi cheikh Mara yaa ngi tudd sëñ Aliou Diouf Lambaye Moustapha Diouf te am taxawaay la moom àndoon ak sëñ Assane Mbacke. Ah. ñuy ñuy ñuy wax ne euh, Macky Sall libéral surtout Serigne Touba boobu nga xam ne defu la waxu la. benn deli benn deli rek la def mooy wuute ak yow xalaat. <laughs> danga nga sam xel génn ci li nga ne. <laughs> waaye bu ma continuer ci ni nga xamante ne noonu la mbir ma déroulé woo. Mhm. ci euh, kilifteefu Serigne Cheikh Thioro. ak euh, sëñ Birame Diouf. ak boolem Pastef coordination départementalu mbake bi Pastef Touba ak Pastef Mbacke. Mm. ànd ak ñun ñi nga xamante ni dañ leen faa fekke woon ku mel ne mm. sëriñ xaadim Ginne mm. ku mel ne sëriñ xaadim mbake Balla Joor ku mel ne sëriñ Mahmoudan mi ga xamante ne moog sëriñ Abdou Baye Seck Xaddi ñoo bokk wenn wayjur maanaam ñu ànd fekk fa bokk yan fa fekk liggéey fa liggéey bu rëy ban fa ban fa def ba nga xamante ne nag keroog président ñëw na dem siyaare ji sëñ Amdi Modou Mbène Fall ngir jaale waale ko sëriñ Cheikh Jëmb ba mu àggee dama koy dama dama koy faral di wax fekk nañ ñu te lalaluñ ko tapis rouge mais xol yi lañ ko lalal. ñëpp dañoo génn. la ko tàmbalee ca parentel ya ba ca ba ca ba ca ba ca mag ña ñëpp dañoo génn. koo gis ci kanam gis mu belli ñëpp yëg ne maanaam dafa mel ne dañ leen seen ruu dañ ko dañ leen a yëgal ne ki leen di libéré moo ñëw. wallaay. Baye Fall yi am ca taxawaay bu am solo ndax Baye Fall yi ñoom ñoo njëkk nekk victime yi Macky Sall. bi mu bi mu faloo ci réew mi li mu njëkk def mooy nangu ci oto seen Cheikh Jëmb Fall. ba mu ko nangu jee euh, ba mu ko nangu jee tegu ci ay waxtu alaaji Seex Kan yàlla na yàlla ko di jéggal ko jëndal ko oto bu ko gën fuuf nga xamante lool loolu loolu mooy loolu mooy ñàkk sago ñàkk sago gi nga xamante ne moo caractériser président de la république ba jamono bu nekk muy dugg ak gel bi nga xamante ne moom lay jéem a doxe hmm. dooguma la Cheikh Cheikh Ousmane hmm. maanaam li nga li ngay wax nii ci ci ci Macky Sall li mu defoon ci ak Baye Fall yi te te te mbir mi mu def mu jaar ci ay ak ci oto hmm. aussi loolu aussi bu xamoon histoire. Mhm. moo tax man ba ma déggee wax loolu ba ma déggee ñu ne toj naan oto Ousmane Sonko. Mhm. ci bi mu demee ci kër kër kër xalif général Baye Fall. Mhm. suñ am ni Modou Mbenn. de loolu bi muy bi muy dem bi muy bi ñu ngi toj otoom. moo tax il faut nga bàyyi ma développé ba Abdoulaye lii jeex. maanaam loolu mi nga amee bi mu jógee jànnatul Mawa. maanaam xoola pour moytu mbàkk. waaw loolu mooy moo tax mu wiiri moo sëñ bi jaari ci àll ba. ngir bëgg rallier Mbacke daje foofu ak euh, force de l'ordre yi ñu ne ko doo dugg Mbacke hmm. waaye le président Ousmane Sonko koo dégg mu naan da leen di yabal ngeen di xeex te moom du xeex waxu dëgg li muy ñëw dama ko woo téléphone ne ko foo toll mu ne ma maa ngi toll ak rond point bi ma ne ko ba amoo gàllankoor mu ne ma song nañ ma ba toj sans pare waaye su ma doon dee sax dinaa yegsi boobu mi boobu mi ci rond point bi waaw loolu ci ngoon gi mooy visite bi doon def ci Baye Fall ci ngoon man ak sëriñ sëñ Xaadim Balla Joor soxna Awa Mbàkke sëñ Mahmoudan ak Saxiir Lo ñun ñoo jiitu ji ca Baay Fall ga hmm. ca sëñ euh, Mbar ak sëñ euh, Fallou Fall moom sëñ Mourou Amint hmm. ma woo ko mu ne ma fi ma toll dañ maa gàllankoor chargé nañ sama kaw ba toj nañ sama pare-brise waaye toog leen xaar ma su ma doon dee sax dinaa yegg loolu en direct live lañ ko seetaan ma ñu ngi ko doon ah, président Ousmane Sonko du ko def mukk seer de ah, canon jàll ci ginnaaw toog xalaat gis nañ teg nañ seen bët ma sëkk ci sëñ Moustapha ko Fall moom de mi ngi ñëw waaye dañ koy gàllankoor ba sax toj nañ pare-brise am mu ne wëlbët ne ma loolu lépp baax na ndax kuy xare dañuy bënn sa bët wala ñuy bënn sa biir na rek na yegg si rek na yeg si rek maanaam ba euh, ñoom ña ngi fa waroon a jóge dix fa lañ nekk ba presque vingt deux heures Hmm. maanaam ni ñu organisé woon protocole bi fonk Ousmane président Ousmane Sonko ak fas yéene koo gunge ci ci ci ci lim nekk maanaam sëñ Fallou Ma sëñ sëñ Fallou Modou Aminta ak sëñ Moussa Mbar yemuñu ci jëmm yu sell yi te ku ci yabaloon sa doom mu doy. Hmm. waaye Serigne seex Ndiaye Mbengue mi nga xamante ne mooy xalifa Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall di jëwriñu Serigne Abdi Modou benn Fall moom lañ ah. dem jël. Hmm. oh ce fut un moment intemporel. aljana euh. lañ doon dund foofu Fall. <laughs> Cheikh Omar Baay Faal yi Baay Faal yi dalo de mais loolu faaw mu faaw mu léeg benn Baay Faal yu ko ne day teew day teew. <laughs> macha allah bi biñ demee ba président bataille ba ba jaar ci kaw force de l'ordre ba dugg si bi mu agsee mënut dugg ci kër gi ndax xam. Hmm. instant boobu maanaam mbooloo mi Baay Faal yi dañuy dañoo dem ba mënatuñoo téye seen bopp ba wóoratul ci sëriñ bi mu toog sëñ Moustapha Mbar moo jóg jël sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng ànd ak moom yóbbu ko. il sauvé ko yóbbu ko indi extrémiste. ndax boobu mujj na bu ful bi contenir atul maanaam émotion bi. ndeysaan sëñ Fallou Fall dellu ca gannaaw dugg ci otoom toog man ñii ma fexe ba ñëwee ci wetu buntu otoom toog parce que bëgg naa bu président ñëwee maanaam ma filmer ko. pour moment boobu voilà moment bu solennel la te demoon na ba nar a yàqu parce que dem na ba benn instant sëriñ si dañ leen a waroon a yóbbu pour seen sécurité. Mm-hmm. te kon day mel ne kon loolu mu def ba risque ci bakkanam sax day nul. Mm-hmm. waaye pour man la ñoom seen cofeel ci président Ousmane Sonko damaa sëgg bëgg a wax di jégalu ci ni mbir yi deme mu ne ma ah Fall ñu de bëgg woon ko woon nii ma ne ko déet waaye Fall yow kay bul jégalu ñun kay wax dëgg yàlla suñu toll yaraa <laughs> ba président bataayee keroog président Sonko dafa buuxante nanguwul nanguwul bu euh, garde corps yi daal kenn moom mooy buuxanteel boppam di buuxanteel boppam ba ak sëgg ci buntu oto bi nuyu nuyu sëñ Falil Fall leeral ko cofeelam ci Cheikh Ibrahima. macha allah macha allah sëñ Falil Fall wax ko wax lu rëy te te rafet te neex lii ngay wut yàlla na ko yàlla teg say loxo ba nga liggéeyal ci lislaam yàlla na ko yàlla teg say loxo ba nga liggéeyal ci Sëriñ Tuubaa Cheikh Ibrahima ñëw nga fii nga xamante ne fii la ñuy yokkoo. ñëw nga fi nga xamante ne fii la ñuy defaroo te barki borom Tuubaa ku toogoon ci jotaay boobee diggante ñaari góor yàlla yooyee da nga xamante ne la ñuy wax du waxi fii. Ah, mer mer nañu de. maanaam loolu ku bañ Ousmane Sonko wala nga bañ Pastef wallaay loolu xoolal dina def ci sa put gi nangami at du du jàll. mën na mi sëñ bi nekk en extase bàyyi fa. di zikkar ca kaw laa ilaha illallah Sam Fall kii foo toll muy jël mais gis nga euh, Cheikh Omar nga baal ma dogguma la dama ci bëgg a barkeel tuuti rek ndax loolu dafa am solo ñun xëy na duñ ko dund ci ci live bi lañ ko dundee maanaam dañ ko doon seetaan rek. gas nañ am de mode ah, benn jërëjëf lan moo gën a métti ak jumaa ji li gën a métti mooy nga euh, événement passé bi di la fekk ci àll bi. parce que daanaka wala ñeent nga yor télé bu nekk nga war a génn fenn di ko seetaan. non fee fee moom fee moom la fa nekkoon loolu loolu jaroon na fay un milliard fekk si. ndeysaan tey tey dafa am lu ci am solo loo xam ne si mm-hmm. Moustapha bëgg naa ko ci dolli ndax xam naa Jean Michel moom euh, heure bi jeex na mais li ma ci bëggoon a dolli tuuti rek bariwul mm-hmm. dama bëgg wax ni mm-hmm. euh, euh, Cheikh Cheikh Cheikh Omar Baye Fall yi dugg gi ñu dugg ci mbir mi xëy na moo jaaxal ñu bari waaye it man man sax awma ci lecture nii da Macky Sall day na tooñoon ñu bëgg a sot déedéet déedéet dañoo dañoo yëg convergence su combat Ousmane Sonko man dama jàpp dama doctrine dama voilà da waaw kay loolu laa jàpp xam nga xam nga maa ngi koy wax keroog am woon ah, occasion def communication o woon occasion def communication foofu ah, mais c'était là la place idéale hmm. pour def corréla pour pour pour pour pour expliquer le don de soi hmm. parce que jëmmi Baye Fall mooy incarnation don don de soi hmm. ndax mooy ki nga xamante ne moom day ñàkk joxe ma jàll dunde man man bi ma gisee ma son yére bi yére bi Mm-hmm. man dama ni man li ma ci jaaxal man man man dama ni yére bi Ousmane yéreem la sol daal yéreem la sol. yéreem la sol. da xam nga maanaam don de soi mooy yow yaa bëgg a nekk Baye Fall askan wi. xam nga ñu jox la jaxas jaxas nag jaxas nag leeraloon naa keroog li muy tekki daa bëri. Mm. mooy sagaru ku ne nga ci. waaw loolu mooy melting pot ngay jiite. Mm. ak boolem seen sensibilité. waaye nag cosaanul jaxas mooy xam l'ordre des des priorités. Hmm. ndax Cheikh Ibrahima Fall diir bi nga xamante ne ci lay tërbiyee Cheikh Ahmad Bamba Xadim a amul jër taxaw ji soppi yére lu dagg mu jël dara daax ci waaye wéy ci dërëf bii bu rëy bi nga xamante ne moom la fi ci kanam dafa seen saag président Sonko war na cee jàngate maanaam waaxu rek wéy waaw jëm nga xamante ne moom la dëgmal. muy jël réew mu delloo ko Sénégalais yi. Cheikh Mar nga baal ma Cheikh Mar ma si may ma mu barke la si tuuti balaa ma sama xol sedd mooy. Mm-hmm. loolu nga wax noonu ci njaxas bi. xam nga mm-hmm. Baye Fall yi fi ne nii seen philosophie dafa koy war a yaatal. ndax mm-hmm. nag ba ci seen njañ yooyu noonu. Cheikh Fall doon wax ni. yëkkatilu yëkkatilu Serigne Touba. xaju fa. dëgg la. habité xaju fa moo tax. loolu loolu loolu mooy la promptitude à servir. macha allah ba pare. ndeysaan non Cheikh Cheikh la promptitude à servir tey tey gis na xam nga baat boobu. Ousmane baat boobu Ousmane dañ koy lu bari. maanaam nga servir. te servir moom dafa nekk baat boo xam ni. pour nga mën ko def day fekk ñaar daje ci yow. te hmm. loolu boo demee ci waxu si Modou mu Baye Góor. Hmm. da nga fay fekk muy wax ni. se servir kii moo ko man muy philosophie Baye Fall muy maanaam. Hmm. nangoo di jaam te des gor. te des gor tigi. xam nga nangoo di jaam te des gor mooy naam nangoo nekk taalibe ñëpp. nangoo service de la nation. mais gore. gore mooy nga xam ni. dara loo moom. te dara moomu la. xam nga. du dara loo mm. moom dara moom la te it lu maanaam loo yor nga def ci a ngor gu mat sëkk. Mm. mu ni jaayante loo dul xaj. Mm-hmm. fas loo dul fecc. bàyyi faa amul bàyyi faa amul xam nga ne wallaay wallaay wallaay ba pare mu mujjee nii doxe ko waxee ko mm. mu kanam. wallaay wallaay wallaay. ba noppi nii ku dëggal dugg. ku dëggal dugg engagement rek la engagement rek la laaj ku dëggal dugg. ku dëggal dugg. te mu dugg parce que dafa dëgg gi Pastef gi ku dëggal dugg da ngay dugg. moo tax Baye philosophie Baye Fall tey. Ousmane bu solee yére ba yéreem la sol. loolu laa ci yéreem la sol. kon daal xam naa ne dinañ sant bu baax. bokk ya fa nekkoon sëñ Xabaan Mbacke rek sëñ Cheikh Coro. Hmm. moom it ku sonnoon cee kon ku sonnoon cee liggéey bala ak sëñ Fallou Mbacke. ak hmm. waa kër sëñ Cheikh Absa Guèye ndax ñoom wax dëgg yàlla. ak sëñ Bas Salis moom hmm. sëñ Moustapha Bachirou moom it sonoon na ci sonoon na ci mbiree loolu di dox ca vraiment ay eh, lépp lu koy baaxal rek ma nga ca woon ak yeneen soppe yi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi doon woo nag eh, di wax rek luy defar sëriñ xaari moom sëriñ Dambata sëriñ Modou Abdoulahi Mbacke ak sëriñ eh, sëriñ Jili Mbacke moom sëriñ Cheikh Modou Fatick moom it wax dëgg yàlla am taxawaay bu rafet ci ci ci di ñu conseillé ak lépp luy defar leneen li may wax nak patriote yi mooy le 23 jeudi le 23 incha allahu taala bii ñu nekk alxames ji ñu jëm bu bu baaxee maanaam président Sonko day rencontré boolem doomi daara yi les acteurs et les ressortissants de doom de daara. moo xam moo xam imam yi la sëriñ si la jàngalekat yi la élèves yi la ñi jàngoon alxuraan sax ci jàng te nekk ci yeneen corps de métier. Hmm. président di leen day daje ak ñoom. incha allahu taala waxtaan ak ñoom ci daara ji waxtaan ak ñoom ci naka la ñuy institutionnaliser daara ji ak it jox ko li nga xamante ne moom la yeewee ci réew mi loolu incha allahu taala jeudi lay am le vingt 23 ca immeuble Abbas Sall ca avenue Bourguiba jàkkaarloog école police ku ci bëgg a xam dara incha allah boo ma ñaar a ci jox ay information incha allah. macha allah macha allah macha am na solo gars yi daf li ñu dese ci temps bariwul euh, sëñ bi dafa dégg ndax wax na man man bien bi mu utiliser convergence convergence xam naa suñu ci waxtaanee suñu waxtaanee dafa bëggoon thème bi ñuy développer mu nekk dañuy def benn genre syllogisme benn parallélisme entre njàngale mag ñi. ak ñun li ñuy woote ci Sénégal ni ñu bëgg a doxalee ni ñu bëgg a taxawee donc loolu daal bëggoon naa waa bisimilah bay la at. man bindu naa damaa bëgg a bindu. bàyyi mu béy. man yaatal leen ko rek. yaatal leen ko maanaam Pastef. damaa a bindu laa bëgg a def benn thèse bu ndaw. ndax fan yii dama ci loo xam ne si nii dafa may bëgg a daal nii. waaw waaw maanaam dafa mel ne dafa mel ne. Ah. dafa mel ne sax suñu seetaanee mbokk taalibe itam projet Pastef bi nangu ko. waaw mais ah, ma leeral xaaral ma sëñ Daara yi ci Touba. gis nga gis nga teraanga ju ji defal la président Ousmane Sonko. waaw macha allah première Sénégal. waay waay. xam nga léegi non euh, euh, Cheikh Omar bul ma bul bul tax ma fàttali li may bëgg wax c'est très important. Uh-huh. ma ni Moustapha dañuy bokk taalibe yi xëy na dañuy bëgg a nangu projet bi ma ne ko déedéet. Mm-hmm. bu benee nee. waxtaan wi dinañu amal bu mel noonu waaye dañ koy def njàngalem mag ñi mais ci njàngalem euh, Sidi Hadj Malick par exemple. Ah. ndax man aussi nag foofu kër googu dama fa am cër. wallaay wallaay wallaay. waaw ndax sama hmm. sama sama sama sama ñaari soxna yëpp. maam Abdoulaye maam Abdoulaye Niass ci nationalisme. pardon pardon Jean-Michel tëjal ma micro Abdoulaye s'il te plaît. am ñaari galon quoi. non c'est bon c'est bon sëñ bi ah, sëñ bi may ñu sëñ bi sëñ bi baax na. sëñ bi baax na eh, non non yi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax ah sëñ bi. <laughs> waaw eh, eh, sëñ sëñ sëñ Moustapha nga baal ma waaw dama doon def eh, digression un peu doon ziar soxna yi ci bis bi ndax dégg naa ñu ni bis bi dañ ciy màggal. màggal ah, mbirum kii yooyu maanaam mbëggeel may may delloo njukkal soxna aw buur kër ma ak ñaari xar jëkkër maa ngi jégalu bu baax a baax foofu mënuma ko woon mañ a wax. macha allah waaw sëñ Xaadim. ah Baye Laat. ñoo ngi lay ziare bu baax a baax. ah delloo ziar delloo ziar. xam naa émission bi jeexoon na mais yow moom sa ñaaka a dugg sa ñàkk a dugg naa def. a ah, maa maa ngi jégalu de maa xam nga maa ngi dama dama dama dama nekkee ko ci waxtaan bu gudd maa ngi doon waxtaan rek sëñ Mourtala Mbuub bu Genève léegi la ñu coupé léegi la ñu pare foofu mën <laughs> léegi yàlla xam na loolu yàlla xam léegi la ñu ko wax la ñu tolloog presque une heure de temps au téléphone. macha allah man fi nga yegsee. waaw. fi nga yegsee baax na trop xam nga lan lañ doon jeexalee ñu ngi doon tëj nii. waaw. li ñu doon jeexalee mooy dañoo seetlu une certaine convergence bu am entre li Pastef di woote li ñuy doxalee ak fi ñu bëgg a jëm ak benn doctrine mouride parce que vraiment ressentir nañ ko dernièrement ci état bu Touba Mbacké bi. Ah ah. dafa mel ne les gens s'identifient les mourides en tout cas s'identifient de plus en plus au projet Pastef par rapport ak euh, li ñuy woote ci don de soi mu mu correspondre ak jaayante li ñuy woote ci éthique mu jubal bi li ñuy woote li ñuy woote li ñuy woote maanaam ba ci turu Pastef bi. li vraiment nekk luy dellu ci ci ci yoonu murid yow loolu ban lecture nga ci am en tant qu'historien yow ban ban jàngat nga ci am. waaw waaw mais loolu xam nga loolu def naa mos naa ci sax de don de soi boobu mos naa ko bind day def parallélisme bi ak ak ak murid yi mos naa ko mos naa mos naa bind def naa def ci benn post Facebook mais euh, li muy wane rek mooy que euh, convergence dëgg la am na. mais mën nañ ko gën a yaatal parce que boo xoolee dafa mel ne sax léegi c'est une demande nationale en fait parce que man gis naa loolu. Mm-hmm. maanaam ci yenn kër diine yi gis naa ko ci sama sama xarit yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci kër diine yi waa Tiwaawan waa waa Medina Baye man gis ko maa ngi ñoo xam ni ci këru diine yi la ñu bokk donc damay waxtaan ak ñoom presque tous les jours maa ngi waxtaan ak ñoom donc loolu dama koy gis dafa nekk benn convergence. mais dafa mel ne nag dafa topp mouvement national bi nga xam nag sénégalais yi ci boppam ñoo identifié wu ak seen mouvement boobu ma gis. parce que mouvement jubal la mouvement dëggal dafa mel ne sénégalais yi dañu xiif jubal ak dëggal en fait parce que dañu gis ay at ay at gi ñu ñu leen di nax dafa mel ne sénégalais yi ñoo doyal ci loolu ñoo bëgg nag ñu ñu soppi réew mi euh, euh, indi yeneen doxalin yoo xam ni dana mën a teg réew mi ci raay. ñu mën a avancer donc demande nationale la boo xam ni euh, ñeneen ñi dañ cee dañ cee dañ cee maanaam dañ cee surfe tarixa yi yëpp dañ cee dugg fi mu loolu gis naa ko ba ba li xew mujj xew Mbàkke Touba gis naa ko ci ba ci yenn sëriñ parce que dama ci waxtaan a ñoom am na ñu bëri yoo xam ne ñu may dugal ci yenn groupe mais dama koy gis dama koy gis dama koy liggéey aussi mais lu dal xel la hmm. mu am boobu en tout cas pour yéen waa Pastef boobu war ngeen ci sant yàlla parce que euh, man li may wax tout le temps naa leen Afrique Afrique euh, ñun suñu histoire c' est le politico-religieux tout le temps. parce que mm-hmm. boo xoolee ñun euh, colonisation benn genre accident la internet la boo xam ni li fa xew ba ñu indi république indi état laïque tout ça c' un accident c' pas loo xam ne ñun ñoo ko décidé en fait bu ñun ñoo décidé dañu am république wala dañu am état laïque Cheikh sax ñu koy bind am na foo xam def naan africain ci boppam mosul gëm république mosul gëm loolu ñun li ñu mës a gëm mooy tout temps y' le temps. ce jeu entre pouvoir politique ak pouvoir religieux boo xoolee tous les royaumes africains c' était comme ça c' moo tax man tout le temps dama daan loolu dañu bu fi bien que nag ñu ngi ci république ñu ngi ci état laïque dañuy souhaiter aussi que république bi boole ñëpp mais euh, religion boobu jógee gu fi ba léegi mi ngi fi bien que nag dugalaguñ ko officier officier guñ dugal ko ci suñu institution yooyu mais ba tey dafa am doole moo tax képp koo xam ne day politique bëgg a defar Sénégal foog nga xam ni hommes religieux yi ce sont des partenaires. te loolu il faut nga dellu ci histoire pour xam ni même tubaab yi fi ñëwoon di coloniser. bi ñu demee ba bi ñu demee ba jaaxle. Mm-hmm. dañuy woo hommes religieux yi. gis nga mm-hmm. épidémie yi mosaan am yi mosaan am ay mille huit cent soixante ak cinquante épidémie yi fa daan am ñu dañuy woo hommes religieux yi ni leen kat def leen est-ce ngeen ñu jàppale def discours population bi pour que ñu mën a adhérer ci mesures yi ñu jël. Mm-hmm. loolu gis nañ ko bu ay ndar avec le grand Tamsir de Saint-Louis ah, ñoom ñoo doon xam ne ñoo doon jàll ñoo doon relayer le message de l' administration. Mm-hmm. mas naa ko bind sax jamonoy coronavirus bindoon naa la mel noonu wax ni. dañu war a jël ay mesures communautaires bu ñu bëggee éradiquer cette pandémie. def ni tubaab bi defoon woo hommes religieux yi pour que ñu mën a susciter benn adhésion des populations aux mesures qui sont prises. bindoon bindoon mm-hmm. naa doon wax dëgg waaw waaw léegi nag moo tax euh, li may wax waa Pastef en tout cas mun naa ko wax homme religieux homme politique yu bëri parce que ñu si bëri samay xarit la ñu euh, euh, ñoom Abdourahmane Diouf samay xarit la ñu Abdourahmane Diouf bokk ñu liggéey baag moom <laughs> ah ku mel ne ba ci ba ci ba ci ba ci ñeneen ñi ay ay ay Thierno Alassane Sall Thierno Alassane Sall daf may daf may woo tout le temps téléphone tout le temps euh, on se parle tout le temps donc ñoom ñëpp samay samay waay la ñu donc bu ma ci amee conseil ñëpp laa koy jox dama dama naa temps képp koo xam ni om politique la da nga war a jàpp les les hommes religieux comme des partenaires en tout cas en l'état actuel du Sénégal képp kuy defar Sénégal da nga war a jàpp ni les hommes religieux c'est des partenaires foo dem nag da nga fekk ñu baax fekk fa ñu bon ba ci hommes religieux te loolu histoire la doomu aadama mu mel noonu boo xoolee histoire Égypte ancienne religion moo yore woon daanaka la civilisation égyptienne avec la prêtrise les prêtres yi fa nekkoon mais prêtres yi amoon na ñoo xam ne dañ doon dañ doon détourné maanaam offrande yi ñu doon joxe maanaam addi joxe ko indi ko teg seen temple yi am na ñoo xam ne ay prêtres lañu pourtant mais dañ doon détourné am nañu ay attestation yoo xam ni wane na léegi ni y avait procès yoo xam ni qui impliquaient des prêtres des hommes religieux pour wax li la foo dem di gis ñu baax di nga fa gis ni bon aussi mais nañu jàpp ni en l'état actuel du Sénégal ma dama jàpp sax ni kenn mënul diriger Sénégal la l'appui des religieux loolu il faut nit ñi xam ko te loolu c'est du réalisme politique en fait c'est de l'intelligence situationnelle il faut nga mën a maanaam boo bëggee transformer te réew il faut toujours partir du vécu des gens li ni ñi gëm fekk leen ci pour mën a développer Sénégal maanaam ce sont des partenaires nga da ngay am sa politique de programme de politique agricole Baye kenn gënu leen nekk des partenaires pour benn politique de développement agricole. boo amee xalit Baye Fall jàppale la si sa politique agricole mooy yow loolu c' est c' est loolu c' est le succès assuré. c' une autoroute voilà c' une autoroute donc il faut que homme politique yi xam ni les religieux se sont des loolu leen woon nag ñu fekk boo ñëwee indi sa saay taa ñu seetaan la waaye boo ñëwee indi doxal dëgg bëgg développer sa réew ñu jàppale la aussi. et et c' est comme ça noonu la war a doxee pour man noonu en tout cas loolu mooy sama conseil bi mooy jox tous les hommes politiques du Sénégal ni leen en ah, l' état actuel du Sénégal en tout cas ni Sénégal tëgg tëdd moom kenn mënul dem euh, te bàyyi fii euh, homme homme religieux yi. donc il hmm. faut vraiment que euh, ñu ñu ñu xam loolu. bon ku mel ne Mamadou Dia xëy na peut-être bu ñuy wax peut-être erreur bu ndaw peut-être loolu moo loolu mooy erreur am en fait bien que nag c' était quelqu'un boo xam ne c' est bëggoon lu baax ci réewam bëggoon développé réewam mais dafa bëggoon initier ay politique agricole yoo xam ni day mel ne da koy xaw imposer les hommes religieux alors que hmm. c'était le contraire qu'il fallait faire il fallait ñëw waxtaan ak ñoom jokkoog ñoom ñu leen ah man ka dama am politique boo xam ni dama bëgg mu développé Sénégal te dama bëgg ngeen jàpp waaye doo ñëw imposer ko boo ko def rek dañ lay seetaan hmm. donc moo tax loolu il faut ñu jàng ci histoire il ñu si jàng bu ko defee. erreur bi passé nañ ko mën a éviter. demee ba tubaab ñoom seen bopp xam importance religieux yi jafandu ci ñoom pour développer mais li tax Sénégal nekk pays boo xam ni dañ ko xamee gerteeg yooyu bay gerte mais parce que euh, colonisateurs yi mais dañ ko soxla woon les huileries yi léegi ñi leen mënoon jàppale ci loolu mooy les hommes religieux surtout les marabouts mourides les marabouts de l'arachide ñu leen tuddee mais écoute mais ça fait une collaboration gis ni dañoo war a ci ci marabu yooyu mais ñun ñun war nañu war nañu jàng ci ñoom et puis voilà euh, ça monteeg ñoom et puis voilà euh, parce que foo dem rek comme li wax rek dem fekk ñu baax di fekk ñu ñoo xam ñu bëri ñoo xam ni man ñu bëri samay waay lañu. ils sont la dañu ñi ñu ngi xaar ku leen dugal. ci mouvement bi pour développer Sénégal loolu la ñuy xaar. moo tax boo gisee engouement bi ni ñenn waa Touba yeeg waa wa yi am ko ci ku mel ne Ousmane Sonko. parce que dañu gëm ni war dëkk bi war na soppeeku nag jot na jot na ñu ñu ñu jàll ci yeneen yeneen yeneen def a dëkk bi mën a xam na xam naa jot na su jot na TV le mot de la mmh. fin foofu la foofu la la foofu la euh, tani tani wasaana nan la ñu waxee noonu xam na xam naa beneen yoon moom beneen yoon foog nga teel a ñëw parce que ñu gën ñu wax un peu ñu wax un peu d'histoire waaw dana ci baax waaw dana histoire dafa am solo histoire il faut que am politique bàyyi xel bu baax histoire il faut ñu bañ di répéter les mêmes erreurs waaw c'est très ne maam jàpp ne erreur bu bari yu Macky Sall di def ñàkk xam histoire moo ko waral donc il faudra que ñu taxaw ci pour ndaw ñi ñuy déglu ñu xam un ci peu yi nga xam te ne xewoon na parce que ah. l'histoire était l'éternel recommencement te dinañ ci jàpp comme ça dinañu mën a waaj waajal pour yii di ñëw xam Jean Michel bi ñu coupé te pare bu ñu ñu ngi tàggoo ñëpp rek. Euh, di leen sant di leen teewlu di bu baax a a mm. di leen dig daje. Euh, fan yi di ñëw rek incha allah bëgg nañ def yeneen panel yu gën a diversifié yoo xam dañuy waxtaanee rek réew mi waxtaanee Sénégal. ci wàllu mm. diine parce que du ñaaru séparé ci wàllu diine ci wàllu politique. wax mm. wax convergence yi ñu ko si demal waxee. suñu wan ma bàyyi la rek phrase phrase bi ngay wax ci seen Ousmane Sonko nga tëjee phrase boobu ngir yàlla ñu tàggatoo. c'est un œuf d'espoir que le Sénégal des jusqu'à mmh. éclosion. <laughs> macha allah la boo xamante ne nit ñi baax ñëpp ñoo ko war a bóof. ba mu mmh. tostante naawtal. macha allah jërëjëf. jërëjëf macha allah merci beaucoup. merci jërëjëf gars yi. tey ñuy séen fi ñu bëgg yegg juin la tàmbali woon lii sumb bëgg sa réew lalu woon ci xalaat bu sell njàngale muy jariñ askan bi yépp ak royukaay ñépp nawloo tey mooy dox ba weesu suñu ay def lu bees jàngale jumtukaay muy ëmb sunu taarix bu ñëpp bokk jot na média group di yam képp ci lu mun dañàkk waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki xarit yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ah, di nuyu euh, particulièrement téléspectateurs yi nga xam ne ñoo nekk ci euh, Jotna TV tan excusez-moi ma deux secondes rek ma defal sama son bi voilà maa ngi jégalu waaw di nuyu euh, les fidèles téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ngi ñuy suivre ci Jotna Euh, euh, tey nag dañu ñëwaat ak yéen ci benn waxtaan boo xam ni euh, waxtaan la du du sax émission tey bu ngeen seetloo nii amuñu sax un journaliste boo xam ne mooy laaj ay question yu ni mel mais waxtaan la boo xam ni man maa ko amuloon ci sama page personnelle sama page Facebook invité ci woon sama ay xarit Moustapha Diouf Serigne Moustapha Diouf ak Cheikh Omar Bamba Diop. xam naa ñoom naa leen bàyyi après nuyu ak ñu nuyu bi ñu mais euh, euh, bi ñu waxtaanee ci li nga xam ne si ni moo xew Touba li nga xam ne si ni mooy xew-xew yi nga xam ne moo am fan yi euh, waa Lamine Niang nga xam ni moom te mën nañ ko tuddee le rédacteur en chef de Jotna TV moom dafa déglu émission mu intéressé trop mu xam ne li ñu doon waxtaan war nañ ko mën a yaatal ndaxte li internet yi di wax ak li Sénégalais yi di wax mooy yéen ñi nga xam ni xëy na yéen a nekk ci parti bi xam les textes xam les et que am ngeen ci ay responsabilités et que aussi euh, euh, xam nañ ni bokk leen ci ñi nga xam ne ñooy wesaare violence bokk leen ci ñi nga xam ne ñooy saagal bokk leen ci ñi nga xam ne ñooy xuloo terrain bi da ngeen ko bàyyi ak ñeneen ñoo xam ne xëy na nee na ñooy dañuy mbubboo Pastef wala ñeneen ñoo xam ne dañuy wax Pastef xëy na moo tax euh, Lamine euh, di ko remercier bu baax moom ak équipe jot na bi nekk derrière ñu bëggoon ñuy amal jotaay yu mel nii comme bi ñu ko amee rek ñu amal ko tey suñu euh, ci page boobu nag donc du coup bala muy tàmbali rek damay bàyyi suñu suwaaju ak Cheikh ñu nuyu ñuy seetaan waaw salaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim auzu billahi ñoo ngi am mbégte lool di amaat daje bi nga xamte te ne amaloon nañ ko ba noppi ci Facebook bi mu doon waxtaan entre mbokki taalibe entre mbokki patriote euh, ñu am ñu am tawféexu mën koo yaatal fii ci Jotna TV euh, ñoo ngi kontaan lool bokk ak jotaay bi Seydina Omar ak Baye Lahad euh, di ñaan ñi ñuy teewlu ñu. dawal compréhension suñu suñu matadi waaw lépp luñ fi wax lu mat rek ñu jàpp ne suñu lu matadi ñu jéggal ñu ko di ñaan suñu waxtaan bi euh, njariñ rek tukkee ci incha allah rabi euh, sëñ war bisimilah. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa réew mi ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew yi julli ci yonente yàlla dolli ak teraanga ak leer. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye it mbokkam ma Seydina Jésus Christ alayhi salaam di ziare boolem kilifa diine yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi di ziare it boolem kilifa diine yi nga xamante ne ñoom lañu ñu nekk ci biir liggéey bu mag bi di ziare baylaat di ziare it sëñ Moussa Diouf di am mbégte dajawaat ak bokk bi ak bokki jullit yi ak bokki militant yi waxtaane loo xamante ne mm, réew mi la concerné mm-hmm. ndax Pastef moom mooy li nga xamante ne moo dàmbale réew mi fi mu toll mooy xel daje gi yaakaar yi ci la daje mébét ju rëy yi ci la daje ñi bëgg réew mi ñu ci lan daje kon jàpp naa ne jamono bu nekk war nañoo daje ci seen biir nag ci seen sensibilité yi wuute di waxtaan di diisoo ngir euh, mébét mu min yanu ñu mën ko sit fan bëgg bàyyi la ah waaye jërëjëf Cheikh Omar ñoo ngi leen di sant bu baax Cheikh Moustapha ñi nuyoo yooyu am solo yooyu noonu ah, donc kon ñu dugg ci waxtaan wi rek ah, waxtaan wi nag li ko waral comme ni ma ko junjee sànq mooy ah, président Ousmane Sonko dafa demoon Touba bi mu demee Touba it nag euh, dem boobu noonu indi coow lu bare bare bare indi ko ci réew mi indi ko ci aussi ci euh, euh, biir Touba indi ko ci ci ci même ci biir murit yi sax muy ay tuuma yoo xam ne ñu ngi koy dégg dem ba boobaak léegi ñu koy dégg li jar a leeral nag aussi mooy émission bi ñun ba ba ba xew-xew yi amee rek lañ ko defoon waa jot na bëgguñu def ko fii kon bu ñu ñëwee pour émission bi ñu ngi koy tuddee teggi tuuma lañ ko tuddee waaye teggi tuuma ji nag jëmul sax li jëm ci mooy actualité bi nga xam ni moo am xëy na seen Moustapha dina ci ñëw léegi muy ci li nga xam ne mooy suñu frère suñu xarit Ngagne Demba wax ji nga xam ne ñëw na ci benn wax boo xam ne wax na ko euh, ci euh, fële ci benn conférence bu mu doon def euh, ci Dakar. mais avant loolu installation de cellule. waaw installation de cellule voilà bu mu doon def Dakar. voilà donc loolu après dinañ ci ñëw mais ñun wax ji sax bi ñuy tuddee émission bi nii ak waxtaan bi bu ñu ko tuddee teggi tuuma li ko waral mooy li jëm spécialement li nga xam ne si ni moo xew Touba li nga xam ni euh, gis nañu ni am na changement am na fa gis nañu ni population Touba ñi ngi adhéré ci message Ousmane Sonko ñi ngi koy topp ñi ngi génn ñi ngi liggéey bu baax a baax foofu noonu ci côté que changement mu ngi am foofu noonu ah, loolu du loo xam ne Touba rek lañ ko remarqué mais ci réew mépp lañ ko remarqué réew mi dafa mel ne dafa toll ci ak jeqi ko li ñu wax maanaam li wolof naan jeqi ko maanaam révolution révolution euh, ce qui est contraire à ak ak fipp bokkul fipp nag mooy révolte révolution nag mooy ñoo xam ni dañoo bëgg a soppi li fi ne pour yóbbu ko fu ko gën euh, tey am yoon woo xam ne si ni ci lañ bëgg a jaar fipp nag moom mooy ñoo xam ne rek xëy na dañuy bëgg a xeex rek ngir jóge ci nooteel goo xam ne ñoo ngi ko am euh, te it du ñu xool sax fan la ñuy jaar wala ñu xool sax conséquences yi euh, wala ñu xam conséquences yi nga xam ne loolu la loolu di joxe mais ak jeqiku ci la réew mi toll dafa mel ni li ci suuf. lu ñu nëppal nëppaloon tam ne ci suuf te Cheikh Anta daan ko wax naan les fondement de la nation maanaam lu ci mel ne sunu langue yi suñu wax yi d'ailleurs même langue yooyu sax da ciy dugg li nga xam ne si ni moo xew nga xam ni léeg-léeg am na baat boo xam ne du ñu xam sax lu muy tekki lu ci mel ne par exemple terrorisme li muy tekki lépp. loolu ci xëy na ci tubaab la mais bu dee arabe bi tamit daawa googu nga xam ne si ni suñu xarit suñu mbokk met nga dem wax na ko muy indi yooyu aussi xëy na loolu yëpp. li ko waral mooy jeqi xuu goo xam ne si ni waroon nañ koo def bu yàgg mooy maanaam def une révolution teg euh, ay une constitution bu nga xam ne si ni dana méngoo ak waa dëkk bi dana méngoo li nga xam ne si nii mooy suñuy aspiration ci wàllu mboor maanaam ci wàllu suñu histoire ci wàllu suñuy làkk ñu làkk yi nga xam ne moom la ñu làkk fii ci dëkk bi di ko demee marché di ko nduggee di ko waxtaanee di ko di ko di ko di ko kafe di ko reewee ñu ñu mën cee def tamit de la même manière ñu mu ciy def loolu ñu mën cee def yu sérieux yi nga xam moom lañ jàpp mooy sérieux administration beeg suñuy texte de loi suñu njàng xam-xam et cetera xëy yooyu yëpp ay mbir la yoo xam waroon nañ ko mën a wëlbati te defuñu ko xëy na nag foofu moo tax tey réew mi toll ci jafe-jafe yu métte métte métte ba nga xam ne kenn déggatul sa morom kenn déglootul sa morom te loolu c'est une réalité maanaam man dama am samay xarit yu ma jege yoo xam ne bokkuñu fu ñu for mais mënatuñ waxtaan mënatuñu waxtaan ndax euh, mun duñu déggoo en fait duñu déggoo te damay xam ni qui sont de bon foi comme ni tubaab di wax damay xam ni maanaam waxuñu ñàkk ñu déggoog man ndaxu naafeq mais dañuy ñàkk déggoog man ndax duñu bokk sax fu ñuy jëlee euh, euh, mbir yi ñuy wax wala li ñuy waxtaan lu ci mel ne ci xew-xew Tuubaa yi ci mel ci leneen ak leneen te xëy na loolu li ko waral mooy ah, foo xam ni réew mi tension yoo xam ne Macky Sall yóbbu na fa réew mi Macky sàll ak gouvernement ba ak ak ñi nga xam ne ñoo jiitu yóbbu nañ fa réew mi nga xam ni déggootuñu fi mu toll nii man ba émission bii sax ñu koy waaj ñu ngi ciy waxtaan ak ñoom sëñ Moustapha di ci wax ni nañu sax def ndànk ci li ñuy wax ndax lu foo li naan foo loolu laal rek man man mun a ndax ñëpp a tàng ñëpp am aw tàngoor. donc loolu nag muy nekk une situation boo xam si ni dañ koy yëg si suñu biir kër yi yëg ko suñu relation familiale rek yëg ko ci kër diine yi yëg ko ci sax ci barab yu nga xam ne fu mel ne ay barab yu mel ne Touba du mel ne waxu sëñ Maye Niass jooju mu wax fan yi et cetera et cetera maanaam mbir mi doy na waar moo tax ñu ñu ñu wax jot na waxtaan jot na euh, tey ni ma ko defee nii nag tey euh, waxtaan yu xëy na keroog mbir ma xew Touba la xewee moo tax ma woo samay xarit yoo xam ne xëy na euh, Euh, am nañ ci lecture ndax ay peut-être ñu ngi ci langue politique yi mais sax ñoom ñenn ñi Touba la ñu dëkk ndax Cheikh Omar mii moom dara umb ko Touba ndax Touba la dëkk xam li nga xam ne si ni mooy xew Touba moo tax mu invité leen waaye bëgg nañu jotaay yu mel nii incha allah ñu koy yaatal ak ñi nga xam ne euh, ñoo ngi ci yeneen sax kër diine yi te bokk ci biir Pastef euh, moo xam ci yaan la moo xam laa layeen moo xam ñeseen et cetera ñu mën a yaatal ñu mën a waxtaan ñoom seen i wax li nga xam si ni mooy seen i aspiration ak li nga xam ne moom lañ déggee Pastef ndax Pastef nag lu yaatu la loo xam ne ñëpp a ngi ci biir ay murite ngi ci ay tijaan ngi ci ay laayeen ngi ci ay xaadir ay ibaadu rahmaan ngi ci lépp a ngi ci mais dañoo nekk la dañoo nekk lu ñuy tuddee l'unité dans la dans la diversité ci loolu lañ nekk loolu nag moo tax xëy na jotaay yu mel ni incha allah dinañ ko gën a yaatal indi ñëpp ñu waxtaan euh, wax ak ñoom ci li nga xam ni moo moo waral euh, ay ndaw ak jigéen ak i góor ak i mag takku ngir jeex def ak jeqiku def une révolution changé li xam moo fi nekk kon damay introduire Moustapha Diop sëñ Moustapha bu amee lu muy dolli ci li nga xam ne rek moom laa introduire euh, ñu ñu mën a jox na kàddu gi après Cheikh Omar mu mën a ñëw ci li nga xam ne mooy xew-xew Touba yi waaw jërëjëf Baye Lahad am na solo euh, maanaam euh, lu lu am solo nga wax dans le sens où souvent amoon na beneen waxtaan bu ma amaloon boobu bi yoon sur boo xam ne li ma bëggoon invité nit ñi ñu def rek mooy euh, culture de la contradiction ñu jëm ko cultiver mooy ñun am na yu ñuy subir ñun am na lu ñuy tontoo am na benn mobilisation bu ñu def ci suñuy tontu muy am benn envergure bi lépp mën nañ ko def ci dal lépp mën nañ ko def ci civilité lépp mën nañ ko def ci teggin loolu du ma ci insister jamais assez parce que ñun dañ ne dañoo woote faire de la politique autrement donc ñu ñoo war a jaayante malgré lu mu metti metti en tout cas tout ce qui tout ce qui concerne le débat débat d'idées ñu koy jaayante à chaque fois maanaam li ñu li ñu lu ñu li ñu woote ñu di ko nuyu loolu mooy première chose bi moo tax waxtaan bii nii damaa bëggoon mu nekk loo xam te ne bu jàpp ne waa Pastef ñoo nekk di wax rek mais vraiment képp ku mu mënti doon ak foo mënti nekk boor boo mënti nekk nga déglu ñoo xel xool suñuy argument sooy càmbar nga càmbar argument yi bañ a def par par loolu mooy premier point bi deuxième point dafa am loo wax solo mooy ne euh, diversité bi nekk ci biir passé soo xoolee àddina àddina noonu la demee àddina noonu la demee nit ñi dañoo wute lool lool lool lool mbooloo humain boo jël nit ñi dañuy wute lool lool lool lool waaye buñ fàtte ne suñu wutee lool noonu ba pare ñu ñëpp dajee ci biir Pastef dajee ci le don de soi pour la famille dajee ci changement boobu ñu bëgg a indi Sénégal dajee ci booloo ci xeex bi ñu bëgg a xeex en fait loolu mooy loolu dafay gën a renforcer dafay gën a symboliser suñu diversité bi de donc su uni unifié woo dajee ci benn point noonu loolu dañ ko war a gën a fësal dañ war a gën a euh, xam importance bi léegi xam naa yooyu suñu ñuy débattre la ci kanam Euh, benn point premier point bi ñu bëggoon a bi a ñëw rek te yàlla xam na ne avant conférence de presse bi mooy lancement cellule de Sacré-Cœur bi nga xam te ne si Omar moom témoin privilégié la ci woon dafa am benn point bu bu nekk ci actualité bi muy maître Ngagne Demba rek par rapport ak yoo xam te ne noo xam te ne waxee na ko euh, gars yi la nga amu ci bëgg a indi li tubaab di wax une tempête dans un verre d'eau mooy fu dara amul il y a il pas de quoi fouetter le chat gaa yi comme amuñu luñ jàpp ñu bëgg cee langaamu ndax da ngay jël man misaal bi may jël mooy ku jugee ci étage bu ngande di daanu lu mu jot rek dana ci jàpp wala kuy la lu jot rek dana ci jàpp man noonu laa ko gisee ma ci du ma ci perte sama temps yàlla def na ñu am jotaay bi loolu xew ñu ci wax ma jàpp ne day am solo ñu leeral ci tuuti balaa ñoo jox témoin bii di Seydina Omar mu moom mu indi ci moom moom mi fa nekkoon wan jàngat la ci am ndax man li ma jàpp mooy dafa am yoo xam te ne c'est des débats dérisoires dafa am yoo xam te ne ce sont des mooy lu am solo loo xam te ne war warees na cee taxaw di wax mooy lu jëmale kanam réew mi mooy ni ñu waree suñu réew ñu di ko ŋàññ ñëpp gis ko mu ne fàng euh, organe de contrôle war ko ñu war a wax ci yooyu fan lañ jëmale réew mi mais nit wax ñu jël benn kàddu naan dañ ci langaamu di couper ay vidéo te ku dem seetaan vidéo bi am na ci te nga gis ne dara nekk ci man yooyu ñaari dama ci bëgg a am dama jàpp ne dañ ñuy divertir ñun ñuy xaw a animer divertir boobu loolu mooy première chose bi. Mm-hmm. d chose bi mooy euh, importance su làkk baat day ne man moo wax may wax ci français comme man euh, intellectuel francophone la donc su may wax appel suñu woote appel laay wax keneen kuy kuy euh, kuy wax en anglais il il va utiliser l'équivalent en anglais kuy wax ci olof ne woote ku xam ne moom moom am njàngam ci arabe la féete su bëggee wax appel mu ne daawa mu mot appel la utiliser dans une autre moo bi c'est pas parce que am na benn groupe de nit bu ñu boo xam te ne dañ koy faral di jëfandikoo c'est pas parce que moo mën a leen moo bi que moo bi keneen war ko utiliser demel ne demel ne dama yàlla baat borom ñaari tur yi ni ñu def arc-en-ciel arc lu nekk ci nature bi la arc kon asamaan su génnee arc en est-ce que dañ naan asamaan dafa ànd ak ñoom déedéet euh, beneen beneen misaal soo jëlee yenn ñi nga xam te ne ay ay terroristes lañ leen di woowee nga xam te ne suñuy def yenn yu ñuy def dañuy wax baatu allahu akbar est-ce que dafa war a tax beneen jullit ci àdduna bi du utiliser ci mu allahu akbar parce que day tax ñooñu moom loolu donc pour diir que rek làkk làkk la moom su utiliser un mot d'une langue pour wax daawa pour dire appel fa la yem c'est un mot après moom pas-pasam ak yeneen affaire loolu moom la concerné mais daal man damaa damaa jàpp yooyu noonu loo xam dañ leen ci war a topp donc loolu leeral rek mu doon après ma bàyyi Seydina moom mi nga xam te ne ma nga woon ci bërëb ba moom mu nettali ñu dëgg-dëgg contexte bi ak expliquer ñu un petit peu nan la ressentir mbir yi foofu. waaw laalal micro bi wax jërëjëf Cheikh Moustapha ci introduction bu am solo boobu nga def jërëjëf Cheikh Abdou Lahad yow ci tamhid boobu nga def fa tabarakallahu jataay ba man yàlla dogal na fola mu fekk mm-hmm. nii ma doon modéré débat yi bi ñu toogee di installé cellule bi te booba ngañ dem ba jëlagut kàddu yónnee naa ko SMS ne ko rappelé ma thème bi nga war a traité mu mm-hmm. yónnee ko ko muy enrôlement des primo votants et massification mm-hmm. loolu mooy liñ njëkk a foofu ñu ñëwee di jël kàddu ba agsi ci loolu mu doon expliqué muy maanaam lan moo ñu tax a jóg fan leen jëm ak ñi ñan lañ war a wut ak luñ leen war a defloo ci loolu lay expliquer ne loolu moo tolloo ak li nga xamante ne moom la ñu wooye daawa mooy nit ñi boo leen woowee da leen leeral li leen woowe lan la naka lañ koy defee ak buñ ko defee fan la leen jëmale mu mel ne rek euh, lii alxuraan di wax naan yaa ayyuha alladina amanu in jaakum faasiqum bi naba'in fatabayyanu maanaam su ten ne nit a jo indi la information na nga teey bu baax a baax bala ngaa réagir ndax waxi ngañ demba ji yóbbu nañ ñu bari ñu nekk ay cuune ndax lim doon wax fam ko waxe fala référence historique bi mu def dëppoo na ak te xamante ne moom la doon traité kon problème sémantique bi nga xamante ne moom lañ bëgg a poser loolu du suñu problème. suñu hmm. problème mooy la daan xew démb ak bëgg démb mooy xewaat mooy Pastef ci ñu bari ci réew mi. ci ñoo xamante ne ci couche yëpp nag rawatina léeg ci ay religieux ñoo xamante dañ doon yaakaar ci ñoom euh, pondérance doon yaakaar ci ñoom waxte jëmm yàlla tax ci ñoom lañ gisaat ñu jógaat daalaat seen machine bu mag boobu nga xamante ne mooy machine diabolisation muy machine boo xamante ne jàpp naa sax léegi maana effet inverse lay lay def ndax saa yu xëyee rek taal ko bu ngoonee mu yokk pas mu yokk positif xam-xam yokku leen ko mu mel ne kon waxi ngañ dem ba tëre ji mbax baatu daawa bi moom loolu yaakaar naa leeral ngeen ko ba mu leer hmm. beneen nag mooy euh, baaxana allahu li nuxrija man shaa min ibadati euh, min ibadati al ibada ila ibadati rabbil ibada bu citation boobu nga xamante ne ku ñuy wax euh, ku ñuy wax ibnu amir ribayi ibnu amir moo ko waxoon loolu mi nga amoon ca ndax il faut ñu delluwaat wax ci contexte historique bi ba ñu comprendre li nga xamante ne moo tax muy wax parce que lii muy wax mm-hmm. dëgg la baatu ibaada da cee am te baatu ibaada di tekki culte mm-hmm. waaye citation bi fa mu juddoo sax c'était purement politique mm-hmm. parce que boobu mooy jamono euh, jamono euh, islam conquérant Seydina Omar ibn Xataab radiallahu anhu yawal Seydina euh, Saad ibn Abi Waqas ñu ubbi ji Faris la bataille de de wala la bataille de Khadisi foofee la mm. mbir ma bañ demee ba nga xamante ne Perse yi jullit ñi assiégé nañ leen ku ñuy wax Rustum nekk ba ab général boo xamante ne généralu xaysar bi la woon xaysar bi mu ngi tuddoon Yazdajir moo moo ne léegi dama yónnee ci Seydina Saad Ndaw ne ko dama bëgg nga yónnee ma ay émissaire pour des pour parler ñu yebal Seydina euh, Seydina euh, Ribaay ibnu Amir mu ñëw ci kanamu Rostom wala wala boog bu ngeen euh, ci noo bi nga xamante ne moo moo gën a tubaab muy Rostam mm-hmm. ba mu ñëwee mu laaj ko maanaam yéen lan mooy mission lan mooy seen dëgg-dëgg seen mission mu ne ko dañoo ñëw waaw ah, nga nga nga bàyyi xel li nga wax maanaam eh, eh, Roustom dafa jóge ci armée boo xamante ne armée libératrice la. Baol Média FM daal ñooy jàkkaarloo ak un despote boo xamante ne moom la ñuy woowee Xaysar moom la ñuy woowee Yazdajir war di wala war a war war a livrer un message boo xamante ne non seulement day leer mais ça doit appeler à la reddition. Mm-hmm. ak it dina dina di leen woo it ci ñu xoolaat seen doxalin mu ne ko dañoo ñëw. ngir fas yéene bis naka tey nit di jàmm moroomam nitam dootul am mooy li ñëpp bokk muy doole ji muy alal ji muy lu mën di doon maanaam ñu def ko ci benn pouvoir central boo xamante ne day am ko ko yor nit ñu bala ñoo jot ca loola daanaka sëñ bi mel nañ koy jaamu loole la wax ne dina dañ loolu bu c'était purement politique ba mm-hmm. mu koy wax kon nag ki nga xamante ne mooy euh, nga maître Ngagne Demba Touré bu delsee ci dans un cadre purement politique installation de cellule de d'un parti politique. Hmm. maanaam muy def lecture ci ambition yi nga xamante ne moom la Pastef am ak te euh, ambition yooyu di ambition souveraineté di ay ay ambition nationaliste yoo xamante ne dañoo war a jëmee ci ñu moom suñu bopp ndax wax ci kat fi ñu bi ko ngaj dem ba waxee ñi koy dagg maanaam buñ avancé woon quinze secondes euh, polémique bu ndax moom li wax orienté na ko ba leeral leen na ci souveraineté laa ko jëme li ma ko li ma ko li ci li ma ko jëme mooy libération au peuple yi euh, de l'emprise de la dictature absolument kon jàpp naa ne maanaam euh, loolu euh, di ci di ci di ci débat di ci di ci di ci di ci di ci taxé ay nit di leen ay def ay jugement de valeur jàpp naa ne loolu du ak maandu te du ak ragal yàlla te it réew mi dëgg-dëgg loolu loolu loolu loolu mën a war nañ ko fee moytu leneen li ci gën a doy waar mooy maanaam même su fekkonte ne ci cadre ci cadre diine lay wax sax nit kuy jaamu nit sëñ bi loolu dañ ko dañ ko war a banir la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin képp koo xamante ne bokkaale nga yàlla lépp loo jëfoon tuuru na te bu am yow ma xeamee da ngay perte bokkaale loolu dañ ko war a xeex hmm. loolu dañ ko war a xeex mais nag dëgg-dëgg li mu doon wax y avait rien de euh, y avait rien de religieux c'était purement c'était purement politique bi mu ko waxee eh, eh, man mii maa nga fa woon dara sukkandiku mujj damaa daal di am entendement ci nam ko bëgg a waxee déggee ko noonu amatuma bi ma xëyee sax gis dagg di dugal j'étais choqué mais xam nga li Moustapha li Moustapha doguma la Cheikh a euh, Omar maa ngi jégalu mhm. mais doguma la mais li Cheikh Moustapha wax rek moo ci nekk en fait mhm. euh, ay nit leen yoo xam ni mhm. ay at a nii ñu ñuy topp di ñu wutal ay ndëgg sërëx ndax ba ñuy doog a tàmbali dañu ne woon Ousmane Sonko ci boppam la moom ci boppam moo jiite mbir mi te it moom ab Ibaadu Rahman la boo xam ni dafa bëgg a jël réew mi jox ko imaam loo mu jox ko waa Arabie Saoudite ñu def ci xawma lan ak lan ba wax yàgg nañuy wax yu ni mel euh, ba ci ñun ñii keroog maa ngi koy rappelé keroog si suñu waxtaanu la ñu sonne woon bi ñuy doog dugg ci parti bi boo daan wax nit Ousmane Sonko la àndal boo moytul da nga koy waaj laa nga koy wax bokk na ci liggéey boo xam ne sax waa Pastef ils sont très intelligents macha allah comme wax nga ko sànq Pastef à chaque fois boo leen di diaboliser da ngay ñoom dañ ciy jàngee ba noppi dañ lay prendre en dérision ba pare euh, euh, di ci di ci yokk seen mbooloo. Mm-hmm. parce que bari na yu ñu daan wax ci Ousmane. Mm-hmm. bari na ñun mbokk taalibe yi xëy na ñoo dindi lu ni mel ndax euh, su ma juumul yaa ngi fay sëñ Moustapha dañ daan faral di wax ni. daan utiliser xam nga tey moo bi daxawa wala mais ñun dañ daan utiliser ay baat yoo xam ni baat yi murid leen. daan ko wax ci Ousmane naan ñoo ngi yeesal suñu bal ñoo ngi yeesal suñu njébbal xam nga jébbaloogu yooyu moom mbiri suuf yi la dañ ko daan utiliser pour di man di leen mën a tontu ci yooyu ñuy wax noonu mm. donc dañuy diaboliser Euh, beneen bi ci topp nga xam ne moo jara peut-être leeral mooy le fait que contenu bi li nga wax c'est purement politique parce que article cinq boobu woo xëy na dinaa bàyyi si Moustapha moom mu ñëw ci waaye man bi ma ko xoolee ak bon ama sax ma ko xoolee on le savait on le connaissait déjà on la savait kan la mooy idéologie parti bi lan mooy dég doctrine parti bi suñu doctrine boo demee yenn baat ya nga fa mën a tànn rek wax ko da nga fekk ñuy wax la impérialisme ak tubaab bi nga noot bi nga xam ne noot yi tubaab yi noot nañu ko nga xam ne si ni da ngay tu as l'impression que ni li ñu mën a wax mooy Sénégal moomuñ suñu bopp réew moo xam ne si nii say contrat sa pétrole sa gaz ak yu ni mel euh, boo leen laajee lan moo tax ngeen signé lu mel nii ba ci fan yii président Ousmane Sonko wax na ko ci TER bii nii euh, contrat yoo xam ne si nii amuñu ci dara luñ ciy gagné bi bu bu su perte amee sax ñun Sénégal ñun ñooy remboursé perte boobu noonu diggante boobu noonu loo xam ne si ni yow jaarul jaarul yoon bu la ko laajee naan lii nu mën a demee. mais <coughs> ñàkk loolu nag xëy na moom moom li muy wax amul sax xëy na loolu la bëgg wax dañoo bëgg a dem fexe ba tey dootu ñun suñuy askan dootuñu jaamu ay tubaab. Hmm. te it suñu biir askan aussi dootuñu jaamu Macky Sall. Hmm. dootuñu jaamu keneen koo xam ne si dañuy téye téye suñu no suñu suñu noyyi di ñu wax jóg leen tëdd leen toog leen di ñu wax fii du ngeen fa dem fii du ngeen fa dem. voilà hmm. loolu moom laa ci bëggoon doole rek sama sa waaw. boo amee loolu. xanaa di encouragé encouragé maître Ngagne Demba rek. Mhm. waaw c'est ko xamal ne ko il est sur la bonne voie. xale la il a reçu une hybride. boo xamante ne may na ko muy puiser ci livre sacré yi ni muy ni muy puiser ci droit positif. dëgg la exactement. Euh, Ngagne Demba xam ngeen ne noonu yi duñ ko yéene Pastef. macha allah gos bi gos bi c'est un c'est un Mbappé. c'est un Mbappé. kenn ko duñ ko yéene waaye nag incha allah danañ ko danañ ko danañ ko épaulé danañ ko couvé danañ ko sang ba fi ñu bëgg a àgg àgg fa ak moom incha allahu taala ngañ dem ba doxalal. waaw xam naa xam naa avant ñoo jàll ci point deux bi. moom dafa dafa mel ne suñu borom da ko wax la woon mbir yi avant ndax bi mu demee wal fajri. bi mu jàkkaarloo si Moustapha Diop. mi ngi wax naan mu ngi mu ngi def wax be ay sigle ne noonu la tuddee système bi nga xam ne Macky Sall moom lay utiliser. mooy wax oh. DID. DID ah. maanaam. Euh, diaboliser euh, intimider et divertir. voilà waaw diaboliser intimider et divertir léegi moom ci diaboliser la nekk diaboliser nag moom Pastef du lu bees ci ñun. Mm, mm. diaboliser lépp lu jub lépp lu jub gone yi ñoo ko xamul waaye ñi fi nekkoon bi parti bi commencé ñun xam nañ loolu. Mm. absolument du lu bees. te te te su ñuy def similitude par rapport ak yoonu murid dafa mel ne du jafe-jafe di gën a tax ñu gën a ñuy dëgër gën a gën a mbooloo gën a. mbooloo bi di gën a yokk loolu xam naa bu ma ci développé. dañuy jàll ci ci point deux rek parce que man jàpp naa ne divertir yooyu noonu. waruñu koy taxaw waruñu ko jox importance. souvent nag loolu moom parenthèse personnelle la bu may def souvent ñun patriotes yi suñu suñu pas-pas suñu pasteef suñu xër dina tax gars yi pour ñu piéger ñu ci ay débat yoo xam te ne du loolu mooy débat bi dafa yomb. dafa yomb ñun def nañ loo xam te ne sax phénoménal c'est retentissant mooy li am Touba li am Mbacké def nañ ko ñun. am na yeneen sujet yoo xamante ne comme j'ai dit tout à l'heure ay sujet de fond la qui qui touche à la communauté qui touche à l'intérêt commun loolu nan bañ bu ñu kenn waxloo ci leneen nan lànk nan wax ci loolu waaw suñu bëggee yóbbu ci ay débat naan waaw kii mot bi mu utilisé et cetera waaw moo ko booy ni ko booy di waxee moo tax léegi ñun passons nan wax ci sujet de fond mais sérieusement sérieusement des fois nii man moom attitude boobu laa ci am man damaa jël ne sama temps xam ni mu daan def ne moom am na yoo xamante ne moom sañulu ko boppam mayu ko boppam di ci bind wala di ci wax wala di ci di ci di ci perte temps man sama temps du ma ci perte ci loolu donc li nga wax euh, sëñ Omar ñu encouragé maître leen Demba Touré ne ko neko man Vinicius laa gis nag su ma koy xool du ma gis Mbappé Vinicius laa gis macha allah nag jàmbaar la léegi xam naa xam naa Jean Michel su jàppandee nga nga lancé ñu sujet euh, sëñ Tall Ngol Ngol boobu rek après ñu jàll ci sujet bi comme ça mën mën a introduire sujet boobu su fekkee jàppandee na ci yow Jean Michel waaw su jàppandiwul su jàppandiwul dafa am dafa am dafa am lu bari loo xam te ne mbokk taalibe ñu ngi koy fowee ci réseaux sociaux yi naan ku ci ne naan eh, am na liste officielle des mourides bu nar a man yàlla naa ci bokk ñi naan kii bokk ci kii naan ñi naan bokk ci ñu koy fowee. waaw bi muy liggéey Cheikh Abdoulaye Laat bi si sëñ Bambay liggéey li muy ñaan yàlla ku naan amin sax jegewu ay ay taalibeem soit disant taalibeem soit disant njabootam. parce que ñooñu man jàpp ma ni njabootu Sëriñ Tuubaa la Sëriñ amul yi doom Sëriñ Tuubaa li mu am mooy ay taalibeem loolu la waxoon loolu la waxoon su ma fi jógee topp leen sama mbind jaamu ji leen yàlla te topp sama mbind topp samay doom ñu ne ko buñ fi jeexee mu ni ñooñu xaw ma leen ay ji ay sëtam jóg yor santu Mbàkke di toroxal di jéem a toroxal sëñ Tuubaa waaye seen bopp ngeen di toroxal mun leen a yàq dara ci sëñ Tuubaa jàngu leen Matlabul Fawzayni yéen jàngu leen Matlabul Fawzayni ay nit dem ba Tuubaa ca biir jumaay sëriñ Tuubaa di fa politique wóor na ma ni sëñ Muntaxa def ngeen ko lu mucc lu mucc ngeen te lii état du Sénégal yéen a ngi tooñ de yéen a ngi nii tooñ yéen a ngi nii tooñ parce que ñun amuñu lu dul kenn yooyu fii ku fi bëgg a tuutal limaamul mahdiyu wala nga bëgg fee tuutal buukunta wala nga bëgg fee tuutal sëriñ canaba wala nga bëgg a tuutal xaadim rasul wala nga bëgg fee tuutal tuutal seydi haasi malik yaa ngi nuy tooñ tuutal yoral sa tuut ak sa jikko ju bon ak sa defin gula neex waaye ba fi suñu kilifay diine yi ñun danoo ami kilifa te nangu ko sëñ Muntaxa de wax dëgg yàlla fayu leen ko borom moom ay baayam bin fi ne da leen a topp doon seenu taalibe naa leen fii ni wóor na ma ni yëf yii da koo dab waaye li ko gënaloon mooy bu bés buy wuy ji boromam te yàlla na yeex fekk ku mu rek mu dib taalibe ndax loolu rek la ma sa wone topp ay magam doon seeni surga lu ñu ko sant mu def luñ ko teree mu bàyyi te duñ ko teree dara ndax du def lu su koy teree ay rakkam ay doomam ay taalibeem di ànd ki nit di saboté Serigne Touba ca Touba sëriñ baa nga woon ca biir jumaa ja allahu akbar ay waaye ñii seen yaram du daw seen yaram du daw Touba Touba du fu ñuy politique Touba borom bi mu koy sañ jaamu yàlla képp a taxoon mu sañ ko jaamu yàlla jaamu yàlla rek woowu fa kenn pour lenn tey jii ay nit jóg mel ni dañoo xëy ni sun taalibe gi nan ko ba nan nan yëpp sëriñ si te yéen ñi leen ci dimbali ba ay nit jóge ca àll ba ñëw di di jéem a toroxal sëriñ Touba yéen ñooñu la yéen sëti sëriñ Touba yi ak yéen ñi naan ay taalibe sëriñ Touba ngeen def ngeen lu ñaaw lu bot loo xam ni amul kenn ku te te nag gis nga li ngeen def tijaan yi la gën a naqari xaadir yi la gën a naqari maa la ko wax wallahi naqari na képp ku dib jullit képp ku dib sénégalais naqari na sax jàng bi wallahi ci rek ab sëriñ bu ni maa ngi gërëm président mais président bu ñëwee ci kërub diine ñu bëgg juma mu tabaxal leen juma ju rafet équipe ko def fa lépp kilifa diine googu moom bu ko gërëmul sax dootu kilifa diine ngeen ni kenn du wax lu baax ci ci Sall ñun Macky Sall yéen a xamut waaye man de personnellement li Macky Sall def ci Sénégal musuma gis président bu ko fi def te gaw ma ni beneen dina ko fi def Macky Sall dafa am lu ko yàlla defal yéen xamu leen xamu leen gis nga déglu naa Cheikh Amar yàlla na yàlla dolli wéram ak fan wu gudd taalube bu baax boobu nee na Cheikh Salihu bi Macky bi jote ak Ablaye Wade dafa dem wax ko ko. mu ne ko ab Ablaye Wade xanaa xamut ni Macky Sall ci moom la Sénégal di defaroo li mu defar ci réew mi kan moo ko fi mas a defar ci ay tali ci ay BRT ci ay terre ci ay avion ci lépp ak lycée ay université ay hôpitaux Macky Sall il a construit le Sénégal ku ko wax ñu saaga la maa ko wax maa ko wax mais terre bi aussi les autorités sénégalaises ngeen ngeen sécuriser ko parce que ñii ils sont capables d'aller mettre le feu Jean-Michel il faut sécuriser le terre et ce que je vous dis là c'est important il faut tout sécuriser <laughs> faut vraiment de vrais garde-fous parce que sénégalais yi yenn niveau type de sénégalais bi ngeen doon wax ni moom ngeen bëgg mooy bii nga xam ne lu sénégalais baax le mu yàqu parce que ku dema ku nag ku ñemee sacraliser euh, euh, euh, barab bi Sëriñ Tuubaa tëdd ñeme na lu ne ah te gis ngeen lii bu dakku xam nga fu nuy mujja ñu ne dajji nañ démb barabu Serigne Touba ba noonu ñu defoon Tombouctou loolu laa gis ni mooy raam jëm ci Sénégal sacraliser les tombeaux waaw yu yu sunu gaa yu baax yi fa lañ jëm de fa lañ jëm waaw fa lañ jëm ñi war a wax ñu wax parce que actuellement defe naa kenn ragalatul ñu saaga la kenn bañatu ko sax kenn bañatu ko de wax dëgg yàlla réew mu nuy saaga kay ba sëriñ bi di saaga leen bu dee mooy defar réew mi moomu réew kay kuñ fa saaga sax danga war a sant jël ci asaka ji man day booba sañoon ngeen baleen di ma saaga man dong man moom ñooñu moom seeni saaga mën naa leen koo supporteel waaye yéen a ngi def lu ñaaw lu bon surtout mbokki sëriñ Touba yi ànd ak nit di def lu bon biir Touba te yàgg naa koo wax am na ku dëkk Touba Mbàkke la sant sëñ Touba rek la bañ da koo contre sax fi ne nii il y en parce que yàq nañ seen bopp macha allah naa yéen jéem ko ci lu ni mel. waaw parce que en fait xaw euh, ma balaa maa jox kàddu gi sëñ Amar euh, damay xaw euh, li ma li ñu invité sànq rek bi ñu commencé mu nekk débat yoo xam te ne dañuy wax ci fond ñu attaqué nit ki nañu wax ci lim wax. ñu ñu réagir ci mu nekk vraiment débat de fond comme ça ku ci dem mën cee jëriñu parce que au delà de moom góor gi nii moom mi ngi naan ñi war a wax nañu wax soo ko dégloo di nga xam ne kii ku warta wax la clairement ndax il va du coq à l'âne c'est pas construit li muy wax dafa jaxasoo day wax lii wax lii te ci biir waxam moom wane na ne daa féete donc donc jarul ñuy ñuy taxaw ci moom waaye dañu seetlu ne ci réseaux sociaux yeeg ci télé bi dafa bari ñoo xam ne comme kii nii moom dafa yeggee ba ci bot di ay mbàkke mbàkke ci njabootu Serigne Touba moom njaboot Serigne Touba génne na leen ci njaboot Serigne Touba. moom toll na foofu. te dañ koy gis ci mbokk taalibe ci réseaux sociaux yi nga xam ngay nekk militant patriote ñoom ñu wax dara argument nga ñëw indi argument ne d'accord ñu ne la yow parce que doo murit moo tax. waaw sëñ Amar loolu lu ñu seetloo bu baax a baax a baax a baax ci réseaux sociaux yi ci télé bi euh, sëñ Cheikh Thioro bi mu demee TFM gars yi wax nañ ko ko foo dem dañ la koy wax maanaam yow opposition boobu ñu bëgg a entre nekk taalibe ak nekk patriote léegi plus largement nag opposition entre diine ak politique donc yooyu da ci dugg yow loolu lan lan nga ci mën a wax. waaw Ngol Ngol daal li mu wax su ma ko bëggoon a tënk daa mel ne dama yendu ci ab néeg ñu yendu ma faa jox njar mu saf suukar te sedd te neex mu génn ñu di ko laaj ne ko Omar lu mu yendoo fee mu naan la ilaha illallah jërë sëñ bi maanaam kaani lañ doon dëbb dañ ko ko yendoo sol nga xamante ne maanaam dara dara dara dara ci li muy wax a li mu wax lépp compila ay compilation de mensonge la bu hmm. ah demee ne nag maanaam nit su fekkente ne sag dund da nga ko bëgg a àcc ci wax jooy waxal nit mu di la mosal dootu objectif hmm. Hmm. ndax wala ñuy wax ku log log logal ku log log logal ñoom xañ leen Macky Sall amul militan militant xaalis moo am moom nag euh, dafa dafa dafa dafa wàcc ligne éditoriale am ndax da jàngat histoire réew mi waaw ay valeur gis ay vertu xawma lu mu def ba alko ba loolu mu fàtte ko ba mënatu a wax lu dul ay musiba ndax lii mu doon wax dara amu ci hmm. ndax euh, li xew cosaan li mooy xam nga damay faral di wax ne euh, Sénégal c'est une vraie nation une nation mooy nit ñoo xamante ne dañoo am un désir commun de vivre ensemble waaye ñun sunu nation amuñu désir un désir commun obligation commune de vivre ensemble moom lañu fi mu toll eh, keroog jotaay bii bañ koy am yow Moustapha Diouf keroog yow laa la njëkk ba mu coupé maanaam am na kilifa gu ñuy wax sëñ Mbàkke dem te njaareem ba ma wooyee la ma wax ci yow fépp foo xamante ne man sama jëmm lañ fa soxla man su ma fa su ma fa déggee Moustapha Diouf wóolu naa ngir kooku ñu daje man ak moom hmm. Abdoulahat mii ba ñuy daje ci internet bi xamuñu woon ne ay bokk lañu waxtaan nañ ba daje ci jëlal lu si la bokk fa ay mbokk Jean Michel mii génn léegi su ma waxtaanoon ak moom faaw dina daje fenn léegi nag gis nga réew mi li tax maanaam ciment boobu ñu liyee wéy di baax maa ngi koy waxu démb wal fa jële ñaar li sëñ Fall waxoon rek la ñuy indi sëñ Fall danoon ab diggante ñaar a ko yàq mooy tege lees mënul hmm. ak lànk lees man hmm. dégalees mënul mooy réew mi ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ànd dajale suñuy xoox ak suñuy buy jox la ko mhm. ci appareil boo xamante ne moom la ñuy wooyee état ngay wote taxas boor am ñoo xam ne ñoo sañ a wax ñoo sañ a déplacé wu ñoo sañ a dajaloo am ñoo xamante ne da leen a bëgg teg ne leen yéen yooyu sañu lañ ci dara ñooñu teg ne teg nañ leen lees mënul parce que yii leen constitution bi constitution bi garantiral dañ ko soxla ci seen dunt lànk lees man mooy ba tey lii nga xamante ne ñoo ko moom te ma am ci te soo ma ko joxee jàmm dong nga ciy topp nga lànk ne doo ma ko jox dëgg-dëgg yaa ngi lees man kon ala hmm. kulli xaal diggante boobu ak yàqu munu munu munu munu ak yàqu munu faa ñàkk faw faaw yàquwante am loolu mooy li dox diggante Sénégal yi ak le président hmm. Macky Sall mënta nekk ci réew mi di lambar lambari fu ko neex dem di sàkkal Ousmane Sonko fu muy dugg ak fu muy bàyyi la ko Ablaye Wade mayoon ba tax tey jii mu mën a jiite Sénégal na am élégance bu toll ne may lu toll na na Sonko ba ñoom ñaar moom sax du songoog moom ci élection ndax moom du bokk waaye ba Ousmane Sonko wàcc ci bi songo kam war a songal ba yenn ko ba biir weex mu dóor ci suuf ndax noonu lay def incha allah. gis nga. Euh, léegi nag baal ma ma daaneel Moustapha. bisimilah El Hadj Ngol Ngol képp koo xam ak ñi mel ne moom ak sëriñ sii nga xamante ne ñoo jógeen di diabolisé Ngagne Demba Touré képp koo xamante ne amoo audace amoo courage mën a taxaw ak Macky wax ko dëgg mais kon mhm. noppi mhm. Euh, su fekkente ne say kàddu gën a rafet noppi kon tànnal noppi mhm. bu say kàddu gën a rafet noppi yow yow noppi rek nga war a kon lii wax ni dara du ci dëgg lépp ay nar la te it maanaam réewande weesuwul ci njabootu sëriñ Tuubaa nga di ci tànn ñoo xamante ne ñoom ngay wax ne ñoo ànd ak sëriñ bi ak ñu àndul ak sëriñ bi sëriñ si Ahmad Bamba Xadim Rasulullah daa wax ne askanu Mbàkke ñaar yi dama ko fekk ci ñoom mm-hmm. nangoo toppante ak mokkal alxuraanul karim mm-hmm. Mm-hmm. loolu jamono lu mu yàgg-yàgg changement boobu loolu changement boobu du am mukk saa ab jotaay amee ku dugg si ka war a jóg ci askanu maam maaram xam ne nag moo war a jóg jox kilifaam bu toog waxantuma laaj nag autorité suprême du mouridisme Cheikh Mountakha mi nga xamante ne daal baax te yàgg ci. Hmm. Cheikh mi nga xamante ne dafa laabir te yàgg ci. Hmm. Cheikh Mountakha mi nga xamante ne dafa yàgg taxaw murit yëpp te yàgg ci. kooku amul kenn koo xamante ne am nga benn atome de rébellion bu nekk saxol par rapport ak Cheikh Mouhamadou Lamine Mountakha. Hmm. ba tey rek li xewoon léegi mooy génne mbir ci contexte am di ko dugal faneen dans le but de nuire mooy li xew. li am dëgg-dëgg mooy militants yi Pastef yi nekk Touba ak Mbacké. ñoo taxaw ne Macky Sall sunu droit bi ñu constitution bi garantiral dañ koy jël par force Macky Sall lànk nit ña mer fipp daje ak ña fa teewal Macky Sall coow juddoo ci wa taqu fitnatan laa moom alladina zalamu minkum xaassa coow nag bu juddoo li tax yàlla yàllay tere fitna mooy fitna bu tàmbalee kenn ku ne xam na fa muy tàmbalee waaye kenn xamul fa muy yem fitna ja ma nga tàmbalee ca bureau préfet mujj ca mbedd Mbacké dëgg la àgg ba ñu tentative d' assassinat ñu tiré sur sur la voiture du du président Ousmane Sonko loolu nag koo xamante ne amoo fit amoo jom amoo ngorog liire mbir yi ni mu amee ndax foyer détention fa mu doon xewee ak fa Ousmane Sonko nekk ñoom ñu ngi ci biir Mbàkke ak buntu Mbàkke président Ousmane Sonko ma nga ci jannatul ma waa presque lay lay deux bout de la ville kenn déggul mu wax kenn déggul mu mu digle kenn déggul ñi ànd ak moom wax benn baat boo xamante ne day woowaa Touba ci lenn du dul ak dal noonu la duggee Touba visite yi mu def Touba ci ak dal la ko def ba garde di ko yi ma àndal sax buñ bousculer nit da ngay gis moom mooy téye sa loxo ne la bëgg bousculer loolu dinañ ci ñëw en plus en détail si ñëwaat foofu moom comme yaa ngi woon ca sur place ànd ak ànd ak présentement Sonko loolu moom dafa nekk point boo xam te ne ci kanam dinañ ko gën a développé nga nga vraiment nga nga indil ko point par point. loolu moom dinañ ko kiiwaat. sëñ naa euh, Balaa yow li ñu doon wax nii par rapport ak man toujours dama bëgg a insister ci euh, bodd bi nii bodd yenn yenn mbokk taalibe yi di leen génne ci yoon bi yow yow loolu noo ko gisee daal par rapport ak parce que juste ñoom am nañ. benn point Moustapha Moustapha maanaam mhm. état du état du Sénégal it nag maanaam Macky Sall ak waa këram. Mhm. l'état de Mbacké day pilule bi wax mu nekk seen bële gi mën a gul a jàll. non du jàllagum sax ndax dañ koy. gis ah, du mën a gën jàll léegi nag loolu ñu instrumentaliser sagare nit yi. di leen wax loo wax ju rëy yi. am na ci keneen sax koo xamante ne xaw ma ndax fàtte nañ ko ndax Moussa Diakhaté xaw ma ndax dégg ngeen li mu wax xaw ma euh, joxoon nañ ko élément bi. mais moom bëggoon nañ seen Cheikh Thioro suñu rejoindre ci kanam bëggoon nañ trop moom mu wax ci tamit parce que daanaka même wax yi waa ji wax la wax donc da ngay gis ne en fait leen jox ay éléments de langage. ne dañuy toog soo seetloo saa ñu defee benn manifestation wala dara xew dañuy mel ne ñu kaw a dëggu léegi duñu wax ñu wax duñu wax jékki-jékki rek kenn ci ñoom génn wax dara rek ñëpp topp ci di wax donc